wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim salaatan tu'arrifunaa wa tuusilunaa bihaa iyyaahu wa radiya allaahu an taaji al-aarifiina wa mumiddihim Cheikh Seydi Ahmad Tijaani al-Shariif al-Faatimi radiya allaahu ta'aalaa anhu wa an saa'iri al-xulafaa'i ridwaanullaahi ta'aalaa alayhim ajma'iin mbokki jullit yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ci àddina wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di la jox seen wàccuwaay di leen ndokkeel ci weer wu tedd wu màgg wi di shahru ramadan alladi unzila fihi alquran muy weer wu màgg woo xam ne ci la alquran wàcc ñu ngi ciy ndokkeel mbooleem jullit yu góor yi ak yu jigéen yi mag ak ndaw di ñaan yàlla yal yàlla def weer wi di fekk del siwaat déwén fekk ñu fi fekk ñu ñëpp ñu ngi wér ànd ak wérle fekk ñu ñëpp ñu ngi mucc ànd ak le bu yàlla toftalal ñu ci wërsëg yu yaato yaato yaato yaatoo ba kenn ku nekk loo bëgg a faj ci diine ji mbokk gi nga def ko ñi tëdd ci opito yal na leen yàlla saafara shifaan lana wa lahum tàmma laa yugaadiru saqaman walla alaman wala asaran wala wajaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi caabi féete leen ginnaaw yal na yàlla woyofal pen ya ñuy tëdd ba buñ ko yëg ñañ ca tooñ ba tëj leen it yal na yàlla def ñu gaaw lijjanti leen bañ génn dellu ci seeni mbokk ñu tukki yal nañu am barke ak teraanga cinq continent yëpp ñu fi nekk ñu ngi leen di nuyu tey nag damay bareel nuyoo xassa waa Mauritanie sama mbokk yooyu la tabaarkàlla rawati be Boutelemi ca Chérif Yaqub sama xarit ba sama soppe ba rahmatullah alayhi wa radi anhu waa Nouakchott yëpp ñu ngi leen di nuyu di wax ne ni ngeen di bëggee ci ñun ñu ngi koy bëggee ci yéen ah di jéggalooti nag tardement tey bi quatorze heures lañ waroon a tàmbali waaye rek suñu techniciens yi tey ñoo yóbbu caabi yi amuñu fu ñu dugg xam naa ne incha allah dootul am ndax jar na sax ñu dupliquer caabi yi seddoo ko incha allah loolu rek moo indi retard bi waaye du dara eh, moo tax nag ñu bëgg a gaawal tuuti di ndokkeel di nuyu suñu xalif généraux yi ci réew mi yépp di leen ñaanal yàlla li ñu bëgg ci ñun yal na leen ko yàlla defal ñuy li ñu bëgg ci ñoom yal na leen ko yàlla yal na ñu ko yàlla defal yàlla dolli leen fi bàyyi sàmm leen ñu yàgg a gunge ñu yàgg a topp ci seeni kaw ñuy jiitu yàlla nañu yàlla may ci ñoom li ñu bëgg mooy ñu yàgg fi lool ñu jiital ci nag Cerno Bachiru Muntaqa Taha Cheikh El Hadj Omar al Fouti mu yóbbul ñu mboolem naataango ak e, xalifa yi ci réew mi yépp di ndokkeel mboolem ñi ci gouvernement bi jiital ci son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak soxnaam Mariam fay Sall ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye tey dama koy teg ci sama loxol soppe nag muy Mamour Cissé doonte soppe bu ma dut gis la waaye moo dàq nag ci soppe yi waaw Mamour Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax bu PSD jant bi maa ngi koy nuyu di ko sopp ni mu ma soppee tey nuyoo opposition bi yëpp ci loxoom laa koy teg fa tabaarakallaahu ndax moom it dafa yor parti politique di nuyu société civile di nuyu assatise yi wax ci diine ji yëpp nekk ci télévision yi ak rajo yi teg ko ci loxol imam Moussa Gueye ak fa tabaarakallaahu sëñ Jili ñaŋ bale ca TFM su ñu ma ko tegee ci seen loxo ñoom ñaar rek dana matale fépp Eh, ñuy wax ni ma nuyu nag sama njabootu bopp gi maa ngi leen di nuyu bu baax gannaaw bu ma nuyoo imaam Moussa Gueye ak imaam Mouhamad lamin Diop ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko fi amal ba ci oustaz Abdoul Aziz Thiam waxtu dog moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu ajaratu Kumba Thiam di wax na tey Seras ñoo aye waaye balaa ñuy dugg ci loolu ñu nuyu suñu bopp muy alxaaji sëriñ Souleymane Samb ñu gën ko xam ci oustaz Samb ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom mbokkam ma alxaaji imam Mouhamad Lamine Sakho ak seen doomu ndey ja oustaz Saliwu Mbeng di nuyu bu baax alxaaji Malay Taal man maa ko ne rek comme kër Mbay Fall dafa sori nay ñëw par samedi rek te mu ngi bëgg a magal fa tabaarakallaahu waaye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara suba incha allah di ngeen ko fi gis moom ak njobootam gi yëpp nag ak soppeem yi xaritam yi di nuyu suñu technicien bu mag bile di alxaaji abdul aziz Seck eh, ñëpp a ngi lay sant di la gërëm you are doing a beautiful job hmm, you a happy for your application ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yal yàlla defal la yiw yal yàlla defal la yiw yokk sa mën-mën yow ak ñu ngi koy àndandoor yépp muy Thierno Ndoye Abdoul Aziz Diop Omar Gueye ak Omar Diop ca Dagana fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin di nuyu Pape Lécor ak Mansour Gueye ak ñi nga xam ne ñëwaguñ te war a jógee Seras jiital ci imam Abdoulahi Fall ak ñi muy àndal yegg seeguñ bu ñuy bu ñuy yegg si fekk ñuy jeexal même bu ñëwul it man maa leen fi toogal ndax ni ma ko waxee rek pandémie bi moo tax waaye jokkoon nañu téléphone nag maak moom imaam Abdul Aziz Fall ca Seras kon mbokk yi ma nuyu sama waa yépp nag balu leen àq baal leen àq ñaanal ki fi jógee muy soxna faa binta wadd yal na ko yàlla xare àjjana yeesal yërmande ci moom ci barke koor gi di ko ñaanal yàlla njéggal ak yërmande fa mu nekk te yàlla yégal ko ci barzaxu Cheikh Sidi Ahmada Tijaani radiallahu taala an mu ànd kook mboolem taalibe ak xulafaa u seydina cheikh yam fa fekk eh, di ci toftal Aminata Diop ci Sacré-Cœur ak njobootam gi yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi ba ci wëy juram yaasin Diop ak Adja yaasin Diop ak alxaaji Njaaye Diop ñu ngi leen di ndokkeel di leen balu àq ci weer wi di leen baal àq di ñaan yal nañu yàlla boole baal di ci teg Karimatu Jaag ca Mariste di ndokkeelaale wëy juram di suñu wayjur di alxaaji aliyun jaag ak meme ñu gën ko xam ci meme muy fanta ba suñu yaay ju baax jooju moom it ñu ngi koy ndokkeel ci weer wi ak suñu woy jur wale ca France di alxaaji lamin jaag yal na yàlla delloo ko ci réew mi ci jàmm ak salaam fekk ci mu ngi dund ànd ak wér di nuyu soxna Yata Fall ndey Yata Fall ca France moom it ak wéy juram di Adja Fatou Dramé tey ñaanal wéy juram wa ca Barzak di Mamadou Fall yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko te def àjjana muy wàccuwaayam di ñaan yàlla li ñu am ak ñoom yal na leen yàlla barkeel barkeel njabooti jullit ñépp nag di wax ne góor bu amee jàmm rek këram moo dal kon su ma amee jàmm ba yi may man yépp ma man ko tal ko ñoom la du ma bàyyi nag ba ñu dee ma di leen gërëm kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla barke ak teraanga ak sutura daa iman yal na leen ko yàlla defal soxna yu baax lañ tabaarkàlla rafet nañu baax nañu waaw samay soxna dañu baax dañu rafet waaw kon nag yal na leen yàlla suturaal loolu la yàlla dogal waaw ñu nopp ma lool ma nopp leen lool tabaarkàlla wàññiwu dara ah, kon nag seen suukaru koorango yéen soxna yi xam naa ne moom nopp nañu ma lool tabaarkàlla ma it ma nopp leen lool la yal na yàgg rek ba àjjana du noonu sëñ Samba yal na yàgg rek ba àjjana yal na yàgg rek ba àjjana yal na yàgg ba àjjana na yal na ko yàlla def waaw su ko defee nag loolu mooy seen suukaru koor yéen soxna yi samay soxna nag laa wax ñeneen ñi nga xam ne it ñu ngi ñu sopp ñoom ñëpp cofeel gi ñu am ci ñun wax dëgg yàlla yëg naa ko ñi ma jot téléphone ak ñi may dajeel ak ñi may woo ñépp rek ak ñi ma ëmbal cofeel ca te xaw ma leen waaye maa ngi seedeloo yàlla ne ku ma sopp ak foo mën a nekk ci àddina bi maa ngi ñaan yàlla dawal cofeel sama diggante ak yow te takkee ko cofeelu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla boole defal ci mbaaxam ak ni yërmandeem nag ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci barke weer wi ci barke alquran ju tedd ji di nuyu nag ci jeexitali nuyoo yi mbooleem ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom diine te ñu nekk ci réew mi ma teg ko ci loxol abbé ak Seck muy sama wëllëre mu jottalil ma ko waaye église bi yëpp ben euh, monseigneur Benjamin njaay ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoom la ñu bokkal église bi ñu ngi leen di nuyu ñoom it seen koor jeex na bu yàgg bu yàggul ñun ñu dugg ci suñu koor nit ñu doon ndokkeele ñu it ñu ngi leen koy ndokkeele ah te ñu fexe nag ñu it bu ñuy wari ñu seet ñu leen jox ndax ñoom it seen ngalax yi ñu jox biñ waree neex na lool waaw tabarkal dama cee ngalax ba yàlla defal ma sutura waaw yàlla yàlla xam na ko yàlla xam na ko surtout sama dëkkandoor bii ma jëloon muy Pascal Coly ak soxnaam Agnès waaw tabarkal la ñoom ñi ñu yiw lañ ñu yiw ñu bari jàmm lañ wax dëgg yàlla teraanga bu ñu am sedd ma ci ba ci papaayo bi ñëw ñor seen kër sax bu ñoree ñu dagg ci jox ma sama wàll wax dëgg yàlla waaw yal yàlla fay leen bu ko defee nag ñu dugg ci yoon ci yàlla Moussa bi bu jeexul tey it ñu jéem ko yeggali suba incha allah ñu ngi yemoon ci fi mu labalee Firawna ci baxru xalsuum dem nag donn firawna ca lam amoon lépp maanaam dëkkee misra bu ma nee misra mooy égypte yàlla dëkkale ko égypte ak ñi mucc waaye dina am fu ma taxaw tuuti ndax yoon ci yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam yàlla daf ko dimbale mu àndoon ak fukki xeet ak ñaar yoo xam ne ci banu Israil yàlla daf leen tànn yàlla dogal nag bi leen yàlla tànnee ñu ànd ak yontu yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam jafe-jafe di am yàlla di teggi jafe-jafe di am yàlla di teggi ba am benn jamono nag ñu tumaranke ndox ko ci yàlla Muusa moom la yàlla di wax ni mu ne waqataana minhum isnatay ashara ashrata asbaatan fukki giir ak ñaar mu ne wa aw awxaynaa ñu wax yu ilaa Muusa jëm ci yoon ci yàlla Muusa an istasqiyahu qawmuhu na nandal xeetam yu maanaam na leen jox ndox ñu naan comme ndox amul nag yàlla ne ko anidri bi na dóor bi asaaka ci sa xet ci sa yet woowu alxajara ci doj wi ci xeer wi mu ne fan ba jasat xeer ba xar minhu isnata ashrata minhu tukkee ca xeer wa isnata fukk ak ñaar ay nan ci bëti ndox waxu ko dara disposition bu yonent bi bëgg rek yàlla ànd ci ak moom yonent bi dafa tàllal baaraamam yi rek loxoom la tàllal rek ràcc baaraam yi baaraam bu ne di génnee ndox baaraam bu nekk nekk bon na fontaine di génnee ndox ñu root ba doyal rootal seeni jur ba doyal mu bankaat ay loxoom mu nekk loxoom moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon moom bokk la gaa kii yet lañ ko dóorloo moom ay baaraamam rek la tàllal dafa tàllal loxoom rek ràcc baaraam yi baaraam bu ci nekk di robinet saaba yi root ba doyal root seeni bagaan ba feesal mu bankat ay loxoom muy loxo moo tax nag wa dalal naa ñu keral alayhim ci ñoom alxamaama niir bu leen topp rek di leen keral wa anzal naa ñu ci ñoom almanna dinaa ci ñëw yàpp wa salwa ak mburu kulu lekk leen min tayyibaati ci li nga tukkee ci dagan maa ya dagan ya nga xam ne naa ko razaqnaakum wërsëgal na leen ko wa ma naa yàlla ne na tooñu ma leen walakin li fi nekk kaanu ñoom anfusa anfusahum seen bopp yazlimuuna dañu tooñ ma def nii man bu may xool rekk day yéexal li may def léegi yonent yàlla Moussa aleyhi salaatu wasalaam ndax damaa sob bu may xool fu ne laay xool yonent yàlla Moussa aleyhi salaatu wasalaam au lieu bu may liir damay liir ci li ma war a liir waaye dama damay continuer di liir leneen moo tax yonent yàlla Moussa aleyhi salaatu salaam tànn ay nit bi nga xamee ne labal na fira yàlla sant na ko mu labal firaw na ca baxru xalsum bem lab ñu dellu nag nekk ca misra yont yàlla Moussa xam ne mission am nag léegi tey mu jeex mu dese ko ñaari ponkal yoo xam ne kenn ku ci nekk moom it wan na ko lu ne kenn ki wax nañ ko muy xaaruun ba suuf wan ko foofu lañ toll woon ba ko suuf wan it mu des beneen ponkal boo xam ne moom it ku ko sonal la woon ñu koy wax balaam ibnu bawara balaam doon boroom xam-xam moom it ci njëlbeen gi sax dafa gëm yoon ci yàlla Muusa waaye li ñuy wax corruption guerre yoon ci yàlla Muusa yónnee ci dëkk bi mu nekk ñu wax leen ko mu waar ñam nekkal te wax ko ne man Moussa alayhi salaatu wasalaam maa ngi ñëw jëm si ci moom pour ànd ak moom ñu tuubal waa dëkk bi bi yàlla dogalee mu yónnee ci moom Balaam wax waa dëkk bi ne leen muusa nee na mu ngi ñëw te buy ñëw dafa bëggoon ànd ak yéen ñu ànd ñun ñëpp jox suñu bopp suñu boroom subhanahu wa taala imaam Ablaye Fall da ngeen koy indil fa tey bële bi imaam Moussa di toog ñu baal ma nag ci dagg bi yàlla def bi nga xamee ni ñoom ñëpp yàlla jox na leen ñu baal ñu suñu mbokk seeraas yi ñuy ñëw imam bismillah yàlla def ci mbaaxam tafaddal yàlla def ci mbaaxam yont yàlla Moussa yónnee ci Balaam ibnu Bawara ne ko maa ngi ñëw ci dëkk bi balaa may ñëw nag nanga wax nit ñi ne leen lii ak lii moo ma tax a jóg ña nga xam ne joxuñ seen bopp seen borom ñoom laay ñëw pour waxtaan ak ñoom ñu jox seen bopp seen borom ah suñ ko deful nag li ma yàlla sant ci ñoom ma def ko mooy ma xeex ak ñoom ba ba ñuy jox seen bopp seen borom Balaam gëm na yoon ci yàlla Muusa waaye waa dëkk bi daje ñëw ci moom ne ko kii di jóge Misra di ñëw fii yow ngay noobu lu dëkk bi di notable dëkk bi bari xam-xam loo loo ñaan mu nangu xam nga gars yi dañ lay pompe di la pompe di la pompe ba nga foog ne yaa ne ñu ne ko yow loo ñaan mu nangu mosoo ñaan lu yàlla delloo ndax moom yeggoon na ci ñaan foo xam ne buy ñaan bu tàllalee loxoom li mu bëgg rek la ko yàlla di defal su demee ba juum sax yàlla da koy ubbi lawxul mahfuz mu jàkkarloo ak moom xam nga fa la may yi am fa la may yem mosul ñaan lu yàlla delloo moom moom waa dëkk bi nag dajee ñëw ci moom ne ko yow Moussa lum la yóbbul musaa lum la mën a yow loo ñaan yàlla nangu loo bëgg yàlla def lu mu fiy ut pompe ko ba mu fees del a ah, moom mu xaw koo gëm yónnee ci yoon yonent yàlla Moussa ne ko matul ngay ñëw yonent yàlla Moussa ne ko man yónnanti laa yàllaa ma yónni yow da nga yiw rek waaye li ma yàlla sant dinaa ko def waa dëkk bi daje dajale alal ju bari jox ko mu ne ah lii ngeen may joxle la ak ci li ngeen gaam bi ngeen ma bëgg a dugal man bugguma faa dugg ndax kii di ñëw ab yonent la te man duma yonent damay ragal sama mbir jaar fi yàqu ñi ne ko yow nga am yàlla ba pare fu fu sa mbir di yàqoo nekk ci nopp yi rek dem nag seet ndaw sa gën rafet ci dëkk ba xale bu jigéen ba gënal rafet ci dëkk bi ñu indil ko ko boole ko wurus wu bari ne ko xanaa lii doy na laa addiya nga ñaanal ñu yàlla nga ñaan yàlla Moussa bañ a ñëw ci dëkk bi mu ne waa baax na dal di jël soxna sa jël alal ja ci yàlla Moussa départ pour ñëw ci dëkk bi bi mu déparé ñu yëgal ko ni yonent yàlla Moussa ngi ñëw yàlla xamal ko ko ba tey yàlla ngi pa am patience bëggul lool lor Balaam waa dëkk bi ne ko fa nga daan dem ci montagne ba di ñaan yàlla nañ fa dem nga ñaan yàlla Moussa bañ a yegsi ci dëkk bi mu ne ca ñu dem waa dëkk bi ànd ak moom ba ca montagne ba muy yéeg tàllal yàlla loxo ay yàlla yàlla moo tax Serigne Cheikh Tidiane si almaktub yàllaa ko dimbale sëriñ Cheikh nee yàlla bu nam bu la nammee alag nee du uti benn pexe bu mu lay alagee day fexe day fexe moom yàlla ba la doon teral tedda dil la sëriñ <laughs> non ku mat a déglu mu ne yàlla bu nammee alag nit du uti benn moyen pour alam mu ne day fexe ba la ko doon teral di ko teddadil mu ne bu dee alal alal ji di la teddadil lu mën a doon rek mu ne del di la teddadil dootu la teral mu ne waaye yàlla du uti benn moyen pour dal ci kaw nit moo tax mu teg ci tamit ne foo dégg yàlla ne walillahi junuudu mu ne dawal ndax yàlla junuudam mën na nekk lu nekk waaw mën na nekk melentaan mën na nekk yow mën na nekk lu ne ndax gis nga gaa yi yoo rek xaw na leen fi rey ak fel gaa yi firaw na yi ay fel fel yi ak i teeñ yóbbu na leen àllaaxira daanaka gis nga waxu Serigne Cheikh boobu ak kay dëgg bal am foofu la yàlla jaar ak bi mu yéegee ci montagne bi taxaw tàllal yàlla loxo yàlla dafa bàyyi ba mu tàllal yàlla loxo mu jëm mu mu jëlee fa déggam moom déggatut li muy wax waaye ñi ànd ak moom ñu ngi dégg li muy wax seetal pexe boobu moom moom moom buy wax du dégg waaye ñim àndal ñu ngi dégg li muy wax mu tàllal yàlla loxo yàlla yàlla na nga dafa bëggoon a wax yàlla yàlla na nga alag Muusa ak ñim àndal mu ne yàlla yàlla na nga alag Balaam ak ñim àndal dégg nga wax bi déggatul moom déggatul li muy wax xam nga bu déggoon li muy wax dana changé kàddoom waaye yàlla déggam la fee jëlee mu naan yàlla maa ngi lay ñaan ci lawxul mahfuz ak ismulaahil yoroon na ismulaahil azamil kabir ñaari nit a mos a yor ismulaahil azamil kabir alku mooy bal am ak qaaruun inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa bari yoroon na ismulaahil azam al kabir te terewul mu alku bal am bii may waxit yoroon na ismulaahil azamil kabir te terewul mu alku ba mu fëggee fëgg muta rek mu jël ismullahi alazam il kabir te ismullahi alazam kenn du ci alkabir kenn du ci ñaan àddina kenn du ci ñaan àllaaxira dañ ciy jaamu yàlla kenn du ci ñaan àddina ku ci ñaan àddina alku kenn du ci ñaan àllaaxira ku ci ñaan àllaaxira alku dañ koy jaamoo yàlla ndax ëpp naa àddina ëpp naa àllaaxira rek yàlla soppi làmmeñ wa mu naan yàlla yàlla na nga alak bal am ak ñi mu àndal gaa yi ma àndal naan ko yow xanaa déggoo li ngay wax yow Muusa lañ la wax mu naan yàlla yàlla na nga àll Balaam ak ñi ma àndal gaa yëpp daw wëcc ko fa mu taxaw ca montagne ba bi di ñaan ba yonent yàlla Muusa fekk ko fa rey ko door a dugg ci dëkk bi ñi tuub mu bàyyi leen ñi tuubul mu rey leen moom noonu la ko yàlla àllagee Balaam mu dellu Misra moom Muusa alayhi salaatu wa bi mu delloo Misra yàlla xamal ko ne nag sa dig jege na kàngam yi gënoon a foor yëpp éliminé naa leen réforme bi nga soxla ci diine def nga ko toogal misra waaye waxal sa xeet wi ne leen nañ ñibbi dëkkuñu misra ñoom seetal yàlla stratégie ñu dëggal te toll woon nañ ci six cent mille personnes xam nga bari nañ ñi waroon a ñibbi fu ñu waroon ñibbi mooy Cham buñ la nee Cham tey mooy diggante siri Damas euh, Palestine ak Israël buñ la nee Cham tey foo foo buñ nee Cham arab bu nee Cham mooy indi li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf Cham lañ daan dem buñ la nee Cham rek bu la arab nee Cham mooy mooy environnement bi mooy Syrie ah buñ la nee Saam mooy siri mooy Palestine mooy Jordanie mooy euh, Israël côté boobu yàlla ne leen nag da ngeen di ñibbi yoon ci yàlla Moussa wax leen ko ne faw ngeen ñibbi nag man ma des fi waaye balaa ngeen di ñibbi bàyyi leen ma def benn pexe ndax suñ borom nee na bu ngeen dugg ci dëkk bi waxulu xittatun naxfir lakum xataayaakum ñoom ñu soppi ko ne xibbatun mu ne leen bàyyil ma jël ci yéen fukki nit yónni leen saam ñu xoolal ma mooy tajaasus état bu ne am na ko agent secret ñu xoolal ma environnement dëkk ba pour bu ngeen demee di xeex ak ñoom ngeen xam nu ngeen di xeexee ba installé wu parce que seen dëkk la yéen ko moom te yàlla jox na leen ndigal pour ngeen dem bi fukk yi demee ñu fekk waa dëkk ba bari lool xam nga ragal moom noo mën a def ragal rek te yowut a gën a ragal ci li yàlla bind yowut ñoo gën a ragal ci li yàlla bind ndax dee rek lañ ragal dund rek lañ bëgg biñ demee ci dëkk ba ñu fekk fa ay nit yu ponkal yoo xam ne wax nañ donte wax boobu nag dàq nañ ko waaye siira lu indi rek man wax naa leen ne damay def royee ko sama sëriñ mawlaaya Cheikh Al Hadj Malick Ibnu Ousmane Seydul Hadj Malick toujours buy indi siira danaan ñii wax nañ lii ñii wax nañ lii waaye man Malick ci lii laa ànd looloo gën a maandu wax yépp laay indi waaye bii may wax nag dañ ko dàq doonte bu may jeexal yoon ci yàlla Muusa bi dana leer ca kanam muy ci suratul kahfi insha allah yàlla def biñ ñëwee ci dëkk bi ñoom fukk yooyu fukk yooyu dafa tànn ci xeet ya fa newoon maanaam boo ne njaayeen paaleen njóobeen ah, aydareen siyeen mbàkkeen waaw kay dañuy fukk mu jël kenn ku ne ci ñoom ne leen représenté leen ñii ngeen dem ci dëkk ba xool environnement dëkk bi buñ dem biñ demee nag ñu gis ponkal yi ñu ne ah ñun bari wuñ de six cent mille lañ te six cent mille bari nañ ñun six cent mille lañ te dëkk dëkk bii ñun ku xool sa bopp xool gaa yi rek ni ñii benn wayaas lañ ñuy def rek ñu jeex ñu ñëw wax ko yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ne leen da di noppi sama borom wax na ma waa dëkk ba ay ponkal lañ ndax ne nañ damay nettali xisa ne nañ seen ponkalaay yeggoon na ci dañuy dugal seen loxo ci biir géej ah génnee fa jën tàllal ko ci jant bi ba mu ñor ñu lekk lu soxla ñu koy togg ñëw am ñu ne déedéet loolu dañuy exigence lu ëpp waaye nit tolluwut noonu xam nga sëñ ñaari Niass dina koy faral di wax te mooy dëgg léeg-léeg ma di ko wax gis nga xale xamul ku mën baayam moo tax Serigne Cheikh daan wax ne bul xam mukk ku mën sa bàyyi waaye sa baay dofut nag xam na ku ko mën moom xale noo mën a mel boo ko tooñee mu ne bu sama papa ñëwee ma wax ko ko parce que moom yaakaar na ne papa ma ëpp ñëpp doole <laughs> yaakaar na ne papa ma mën ñëpp waaye papa moom dofut ba xam na ñi ko mën ak ñi ko mënul yàlla dogal nag loolu moo dal ba banu Israël biñ ñëwee nag yonent yàlla Moussa ne leen da ngeen di noppi bu leen ko wax ndax nit ñi dañoo ragal su ngeen leen ko waxee ñu toog waaye xam nga rek am na ñu mënta denc secret ñépp seet na ba des ñaar Yusha ca la bokkoon Yusha moo àndoon ak yonent yàlla Moussa dinaa ko indi ci jeexintal bi ci suratul kahfi moom la Moussa moom la àndaloon parce que moom la doon tàggat pour bu fi jógee mu remplacer ko mooy Yuusa am na ñu ne sax moom mujj na nekk yonent waaye loolu dina ñëw ci fin bi bi yàlla dogalee nag yonent yàlla Moussa insisté pour ñu dem ñu lànk yonent yàlla Moussa insiste ñu lànk mu ne leen dem leen su ngeen demee ñëw ñu doole juñ mën a am yéen doole yàlla ngeen àndal yéen a leen di duma waaye ragal ragal la tudd rek ñu ko ñun daal demuñ xam nga luñ mujj wax yaa Muusa ñu ne ko mu ne izhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaidun yow daal bu dee li ngay wax yow kañ yow yow ñeme nga yow kañ demal yaag sa borom ngeen xeex sa yàlla jële yónni àndal ak moom ngeen dem xeex ñoom parce que yaakaar nañ ni yàlla benn nit la buy yor fetal am ñu ne déedéet rabb ja muñ ci jublu magam ji muy Haaruna waaye lu mën a am rek aaya bii lañ wax ci yàlla Moussa izhab demal anta yow Moussa wa rabbuka ak sa borom bi ngay wax fa qaatilaa ngeen xeex naa ñun ñii haahuna fii xaa'iduuna la ñuy toog demuñu fen yàlla de leen ah baax na yàlla nattu leen nag ñooñu tamit amati beneen fitna yoon ci yàlla Moussa mer ci dem giñ bañ a dem mu ne yàlla maa ngi lay ñaan six cent mille personnes yi bañ a dem yépp maa ngi lay ñaan nga alag leen wàcceel sa rëbb ci seen kaw soril leen sa yërmande yàlla ne ko ñaan nga ko de waaye di nga ko réccu de xam nga nu leen yàlla na nattoo diggante bi trente kilomètres la trente kilomètres misra ak fiñ ñu ne fi ñu waroon a dem am ñu ne ëpp na ko waaye ñi liñ doon baagante ñoom 30 kilomètres la xam nga nu leen yàlla na too buñ demee ba jeexal 30 kilomètres yi yàlla wëññiwaat leen fii fi ñu xëyee woon xawma ñu ngi comprendre li may wax wala déet mu ngi mel ni bu ñu ñu war a jógee fii euh, dem jam ñaajo war na mat 30 kilomètres xanaa hmm? waaw buñ demee ba jam ñaajo ne fii ñooy jam ñaajo yàlla waññiwaat leen Dakar ñu gisaat seen bopp Dakar ñuy baagante ci diggante bi xam nga ñaata at lañ ko def arbaina sanatan yatihuna fil ard quarante ans ñuy wër buñ demee bi fii rek jant bi fenkaat ñu fekkaat seen bopp Dakar ñu xëyaat gàddu seeni bagage pendant quarante waaye quarante ans yooyu yàlla du toroxal nit ba mu ëpp gis nga ci biir quarante yi buñ demee ba guddi jot yàlla génneel leen ay làmp ju xam duñ xam fu làmp-lampe ay projecteurs yu leer ñuy niitu buñ demee ba bëccëg yàlla keral leen suñ demee bi xiif mën na ak salwaa wàcc mburoog yàpp ñu lekk ba suur mu dem yére yiñ sol pendant quarante ans changé wuñ ko te yére yi te yére yi tilimut defut dara xam nga loolu tamit yàlla rek ko ko mën 40 yére yi ñu sol tilimul sufinewut deful dara 40 ans sanguwuñu waaye amuñu benn xet waaye yàlla mbugalee leen rek duñ toog dañuy baagante rek buñ doxee ba yegg yàlla wëññiwaat leen ñu reprendre à zéro wara a continuer waat ci diggante 40 ans yooyu nag balaa muy jeex ci la yónni ci yàlla Moussa faatu lu ko jiitu nag Haaruna moo njëkk faatu mag ji ndax yoon yonti yàlla Haaruna ak yoon ci yàlla Muusa un an lañ magante Haaruna moo mag yoon ci yàlla Muusa un ndax at waxoon naa ko ca début ba at bi nga xam ne na daf daan bàyyi du rey ci la Haaruna juddu at bi mu daan rey ci la Muusa juddu gis nga yàlla ni muy def at bi nga xam ne daawul rey day tëbal ci la a judd at bi mu daan rey góor ñi góor ñi góor ñi laa ci jublu yuzabbihuna abnaahum wa yastaxyuna nisaahum wa fi dalikum balaaun min rabbikum azim at bi mu daan rey góor ñi daan bàyyi du rey góor ñi ci la Haaroona judd at bi muy rey góor ñi ci la Muusa judd kon lim doon bañ yépp yàlla def na mooy gis nga wolof da koy wax toujours te mooy dëgg ku iñaanee sa doon nin sa deewin ñaaw gis nga yàlla lim gën a bañ mooy du fi amee ak sous-estimer aw nit loolu la yàlla gën a bañ du fi amee ak sous nit loolu la yàlla gën a bañ soo ko defee rek mu wan la ne man maay buur yàlla def nag ci mbaaxam aywa natt bi wàcc na ci seen kaw yonent yàlla Muusa mujj na rëccu sax li mu leen ñaan yàlla bi Haaroona génnee àddina taxul ñu bàyyi ko de day ñëw ci yonent yàlla Muusa ne ko ah Haaroona day ne yaa ko rey ndax éloquence bi mu amoon mën a wax am éloquence moo tax nga rey ko danga koo bañ rek mu ànd ak ñoom ba ci bàmmeel ma raay bàmmeel bi moom yoon ci yàlla Moussa Haaruna dekki mu ne ko ku la rey mu ne ko suñ borom subhanahu wa mu tëddaat mu suul ko dem <laughs> nga xam ne nit ñi bàyyi duñ bàyyi mukk weer ci benn fan coow li ne kur ci dëkk bi ñu ne éloquence rek a tax mu rey ko daf ko ñaan yàlla yàlla def ko yónnante ba noppi te xajootu ko moo tax mu yóbbu ko ca àll ba éliminé ko mu ànd ak ñoom ba ca àll ba fa fa fañ denc Haaruna mu raay bàmmeel bi Haaruna dekki mu ne ko dama lay laaj ku la rey mu ne ko suñ borom subhanahu wa taala moo ma rey mu tëddaat mu suul ko bii may nettali nag ci moom yoon ci yàlla Moussa balaa ma ciy ñëw am na ñu ne xissa la ndax fokk ma nettali ko donte nag wérut waaye mu ngi ci biir xaasiyatu saawi ala tafsiril jalaalayni mu ngi ci biir bu ma ko nettaliwul ku xam xissa bi dafa naan daf ko tëb dafa am ñu ne yonent yàlla Moussa dafa ragaloon dee ragal dee ragal amul yonent bu ragal dee amul loolu déjà c'est faux amul benn yonent bu ragal dee xam nga ki ragal dee mooy kan ku mel ni Sidi Maxtaar Kunta mu wóor ko ne lam defal yàlla dara baaxu ci fii baax na waaye fële baaxul moom da du bëgg a dem du bëgg a dem ah Sidi Kine moom du mës a bëgg a dem ndax wóor na ko ne fële du baax comme fële du baax nag fii baax ba noppi du fi bëgg a jóg waaye ab yonent yàlla di wax ak yow yónni la ci mbindeefam yi waaye waaye waaye xam nga ne ab bi bu ragalee dee koy ñeme de loolu c'est faux donte nag yooyu lañuy wax Euh, xisa xisa yooyu la lañuy wax al israiliyaat borom xam-xami banu israil yi ñoo ko ci bind pour sabote ko traduction waaye fekk nag wéru moo tax ku mel ni cheikhul haaji malik ak cheikh al islam alaaji ibrahima ñas baay buñ daan tafsir ba yegg si ci xisa yu toog mel noonu dañ naan ah fii nag borom haasiya dafa juum moo tax suñ mag ñii kenn rawu leen waaw fuñ ci mos a yegsi rek ci xissa yu mel noonu mooy histoire yu mel noonu dañ naan ah fii nag borom téere bi dafa juum waaye nii la moo tax bi yàlla dogalee nag ñu ne ñoom ñu ne yoon ci yàlla Musaa ku ragaloon dee na bi xaaroon a bi xaaroon a génne àddina malakul mawti dafa ñëw ne ko yaa ci des mu ne ko ci naka mu ne ko sa ruux waral na wuy ji sa borom ñu ne da koo pes ba bët bi bënn ndax melow nit la ñor loolu nag wérut moom loolu wérut xissa la bu ñëw ci biir tafsir yi waaye wérut ndax ab yonent du ragal dee ñu ne it suñ borom mos na ko wax ne ko su fekkee ne bëggoo dee utal nag nga rendi ko yëkk wu mag jegeñ bi mooy boos bi nga jël sa loxo teg ko fa lépp lu muur ci kawar rek dinaa la ko defal muy ay at yow Moussa nga dund ko mu ne ko waaye bu jeexee damay dee mu ne ko ah, mu ne ko kon nay tey xam nga kooku ragalul dee man am ñu ne nag ñim génnee àddina dafa romb malaayika yi ñu yor jëmmi nit di gas benn bàmmeel nee na bi mu ñuy gas bàmmeel bi nag mu romb leen dem ba yàgg mu wëññeeku ne leen waaw kii ngeen di gasal bàmmeel bi bàmmeel bi rafet na di xanaa kii jàmb yàlla gërëm la ne ko kii kañ jàmb yàlla gërëm la moom lañu yàlla wax ñu préparel ko bàmmeelam ñun ay malaayika lañ ñu ne ko te jaam boobu xamu leen ko yoon yonent yàlla Moussa mooy wax jaam boobu xamu leen ko ñu ne ko ah ñun ndigal rek lañ jot laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna wa yafaluuna ma yumaruun li ñu yàlla sant rek la ñuy def ñun daal dañ ñu ñu gas ñu ngi gas bi wax ji bare yàlla wax malaaka yi ne leen laaj leen ko ndax dafa bëgg a nekk moom malaaka yi ne ko xanaa yow yi da mébét pour nekk borom bàmmeel bi mu ne ah man kañ bu ma amoon lii jël ñu ne ko dugal mu dugg ñu suul ko dem seen yoon am na ñu nettali loolu am na ñu nettali loolu waaye génnu àddinaam lu mystique la loo xam ne nit mënu ko napp moom yoon ci yàlla Moussa moo tax ñuy werante fiñ ko suul am ñu ne mu nga fii am ñu ne mu nga fële am ñu ne mu nga fële waaye li wér moom mu nga Palestine boo demee fañ ko denc barab bu yaatu la daanaka marché la li may jaaxal nag nitu yàlla yëpp pour nga dem ci seen xabru yi foog nga jaar ci marché <laughs> xaw ma seet lu ngeen ko wala déet bu dee sëñ Touba di nga jaar marché Ocass bu dee Seydi Hadji Malick di nga jaar marché bu dee Cheikhouna Tidiane yi di nga jaar marché bu dee yonent bi di nga jaar ca marché ma fu mën a doon di nga jaar ci marché door a dem man daal jaaxal na ma hmm? waaw di nga jaar ci marché door a dem ba ci ibnu arabi asaaih bale ca raba ca marché ba la nekk moom la na Tijaani radiallahu taala an daan wax ne kuy ñëw ci man na nga jaar ci moom loo fa ñaan yàlla boo yegsee ci man ma dogal la ko moo nekk ca raba waaye balaa ñuy ñëw ci loolu li wóor daal yonent yàlla muusa moom mu ngi Palestine fa lañ ko denc moo tax boo jàngee subhaanallazi asri bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir lu ca teg wa atayna Moussa <laughs> gis nga alquran ni muy waxee fasaaxa wa ateyna Moussa la ca teg wax nañ ne environnement Palestine boobu maanaam li ma la tuddal léegi Jordanie Palestine Israël siri kuuru boobu wax nañ ne lu ëpp junni yonant ñu nga fa tëdd lu ëpp junni yonant ñu nga fa tëdd wax nañ ne biir masjidul aqsa moom trois cent prophètes ñu ngi ci biir jumaa ji biir masjidul aqsa moom wax nañ ne trois cent prophètes ñu ngi ci biir yu kenn xamul environnement bi nag li ko wër mille prophètes ñu ngi fa tëdd te ñoo ëpp fu bomb di dal tey ci àddina bi <laughs> xaw ma ñu ngi dégg li may wax wala déet moo tax buñ sonal suñ bopp nekk fii naan réew mi ñi fi tëdd ñi fi tëdd dañ ëpp yonent yi ñi fi tëdd dañ ëpp yonent yi tey siri bokk nañ ci ñi gën a ñàkk jàmm environnement boobu ñoo gën a ñàkk jàmm ci kaw suuf te nangami junni yonent nga fa tëdd boo demee la fay la la la fa nekk ci ay kéemaan kenn xamul bay baytil maqdis rek boo fa duggee la fay kéemaan da ngay yéemu ci yàlla wa rafa naa mu tuura am na benn monta am na benn doj bu fa nekk doj bi boo duggee ci suufam doj bi laalut kaw la wàccut ci suuf te souterrain la moo dend ak néeg bi Zakaria daan duggee xal wa ak Maryama néeg bi Zakaria nekkoon ak néeg bi Maryama nekkoon bu Maryama baa ngi ci kaw bu Zakaria baa ngi ci suuf nga wàcc ci suuf fa la yonent bi demoon sallallahu alayhi muy def rañaan euh, Isra wal Mi'raj la te xoolal ba ko yónent yàlla Suleymaan tabaxee ba tey moo ko tabaxoon ànd koo jinne yi loolu beneen histoire nga xam ne yàlla lu ko neex def sëñ Suleymaan masjidu eh, Jérusalem masjidul Aqsa bokk na ci li gën a yéeme ci li yàlla bind ci àddina moo tax boo demee di fa fekk xeet wu ne nga fale di julli jullit ñaa nga fale di julli chrétien yaa nga fale di julli ñeneen na nga fale ñeneen a nga fale fu ku nekk ak fa sa direction nekk ndax yonent yu bari dañ fa jaar kon nag yonent yàlla Muusaa ngoog waaye balaa ñuy ñëw ci faatoom ñu jël dernière trace yi nga xam ne def na ko dernier tras yooyu nag mu def moom yonent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam mooy ànd gi mu ànd ak taalibeem bii nga xam ne moo ko waroon na doon muy Yuusa wax naa la Yuusa ñañ yónni woon ca la bokkoon ñu dem seeti environnement ba waaye ba ñuy alag moom bokk ca ñaar ña sennoon bokk ñaar ñaar ña sennuloon bokkuñ ci muy Yuusa moom bokk ci yoon ci yàlla Moussa nag jël ko taf ko ci wetam gis nga yi ci nit ñi di nettali yépp nag imaam ñu baal màq yi ci nit ñi di nettali yëpp c'est ndax ab yonent dafa am lu jomb ci moom dafa am lu jomb ci ab yonent loo xam ne du dal yonent mukk damay wax ne toujours loo xam ne ku ko wax sa bàyyi nga xeex nga nga nga futtee xeex waaye waaye boo ko waxee ab yonent tooñ nga sëñ Suleymaan ah loo xam ne ku ko wax sa bàyyi nga futtee ku xeex imaam xaw ma dégg nañ li may wax wala de loo xam ne ku ko wax sa baay nga futteeku yow xeex waaye noo koy tegee ci deru yonent nga xam ne yonent gën ñëpp yonent boo gis moo gën àddina bi yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw nag gën ñépp benn yonent boo mën a jël nag ci yonent yi mu am nubuwa te amul risaala moo gën àddina bi yëpp boo ko tegoon ci balance jël àddina bi yëpp ak li ci nekk teg ca beneen balance ba yonent bi daaneel yonent bu amul risaala laa wax de nubuwa kese yonent bu am risaala nag kenn xamul xaymaam te yonent yàlla Moussa min ulil azmi ci yonent yi cent vingt quatre mille lañ cent vingt quatre mille yàlla tànn ci trois cent treize yi gën yi gën a jege 313 yi mu tànnaat ci vingt 25 indi leen ci alxuraan 25 yooyu la alxuraan tudd ñooñu gën a ti koo jege 25 yooyu mu tànn ci 5 muy ulul azmi min rusul min ka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bni mariam muy juróom mu seppi ci yonant bi mu gën ñépp nag moom yàlla ba booleel ko ca nag moom inna arsalnaaka kaafatan linnaasi bashiran wa naziran yoon ci yàlla Moussa li muy baax baax baax Égypte ak li ko wër lañ ko yónni woon te sooy ba nga woon ca Madiana di yonant comme moom yilif fam yilif yonent yàlla Moussa yilif fi mu yilif yonant boo gis dañ ko limité woon ci fi fiñ koy fiñ ko yónni ba mu des yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom rek moo ñëw yàlla yónni ko ci àddina wërngal këpp ci nit ak jinne moom rek moo ko mos a am benn yónnante mosu ko am moo tax nag yi ñuy waxal yónnante yàlla Moussa yëpp nag dëgg dëgg nag lu ci bari nag israiliyaat yi la rek waaye du xissa yu wér ndax ñaaw na sax ba ëpp nettali ko sax ëpp na ñu liñ ciy wax nag li tax ma ubbee foofu mooy sëñ Souleymane ñu bari dañ ne yoon ci yàlla Moussa dafa toogoon di waaraate ba mu yàgg mu ne xanaa dëkk bi kenn rawuma fi maanaam gis bi mu gis boppam yàlla ne ko ah. te buñ dégg loolu li may wax dinañ xam ne loolu yenn wut maana dinañ xam ne loolu yenn wut maana waaw ab yonent ku ko mën a raw dama leen di laaj rek yonent kañ kenn raw ma joxe benn exemple ñaate président moo am Sénégal benn wala ñaar non ñett la de du ñetti président moo fi am ah yéen a ngi nii lank de benn fi am <coughs> jeex na waaw président boobu man dof naa ba taxaw fii di di wote président léegi léegi alkaati yi jël si ma opposant bi gën a xër fii ci Sénégal bu taxawoon ber ber langam ne je suis le président de la république suba mu fanaani kaso ndax constitution bi mayu ko ko voilà ndem ñun ñoo mën a organiser wu ba benn benn président di am ci benn réew waaye waaye yàlla jëlub yónnantam nag yónni ko nga naan lii ak weex na ak ñuul na ak bëla na xam nga loolu yab yàlla la yab yàlla la te yónnante bu mu mën a doon nag moo raw ci xeet wa loolu kañ soxlawut wax yàlla dina yónni koo xam ne xamul dara eh, non nit ñi ñuy wax loo xam ne yenu na maanaa yàlla dina yónni xutuma yàlla dina yónni ku xamul dara gis nga yón lii dafa jomb ci yonent yii may tudd nii dafa jomb ci ab yonent ab yonent du muuma kon nu muy waxee xeetam wa ma arsalnaaka illa bi lisaani qawmihi kon nu muy waxee gi ñu ko yàlla ab yonent du mukk ab yonent du silmaxa ab yonent du gaana kon di nga ne laaj laaj yaqub yaqub sil ma xawutoon de wab wabyadat la wax la ñuuloon moo weex waaye mu ngi gis la lay wan ne mu waaw la ñuuloon moo weex waaye mu ngi gis moo daal Seydi Aj Maalik wabyadat aynaahu min al xuzni la yàlla wax min al xuzni ndax njàqare waaye sil ma xawut de la lay wan ne sil ma xawut ba ñuy indi mbub ma eh, inni la aji ajidu riixa yu yuusuf la wax te boobu distance bi mat na cinq kilomètres yegg seeguñ la ñim toogal mu ne leen inni la ajidu riixa yuusuf xetu yonent yàlla yuusuf ak may xeeñ te boobu en cinq kilomètres yegg seeguñ ñu ne ko papa yow bàyyil sa waxu xàll mbologaan yi yow doo fàtte yuusufa yusufa dee na bu yàgg mu ne da ngeen di ko ne rek waaye inni la ajidu riixa yusuf xeti yusuf ak may xeeñ fa lamma jaa al bashar bashiru alqaahu ala ñëwee rek yusuf jox lu mu leen joxoon mbubbam ñu sànni ko ci xar kanamam rek fartada basira mu dellu di gis moo lay wax ne silmaxawtoon wabiyadat aynaahu wabyadat weex na ay naahu ay bëtam minal xusni ngir njàqare yàlla xam na silmaxa de tudd silmaxa de yo waxul silmaxa de wabyadat ay naahu minal xusni wa huwa kadib du noonu nag li ñuy wax naan yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam pititit patatat mais yonent bu rawut kuy raw kon bu wax bu yàqu la nga naan dafa taxawoon di waaraate benn xanaa réew mi kenn rawuma fi loolu sax ku ñàkk xorom a koy def te xam nga ne ab yonent éloquence eh, xëy ba mooy personnalité élégance loolu ci yonent la fekk baax loolu ci ab yonent rek la fekk baax ndem président bu génnee rek dagg yi topp ko alkaati yi topp ko sérité yi topp ko sirène yi topp ko waxuma la ak ab yonent kon moom soxlawul muy toog naan maa ndax ñëpp xam nañ ni moo fi mooy yónnent bi yàlla yónni xanaa kañ bu bu bu ku mel ni firaaw na génnoon ne maa fi raw sax ñu ne waaw day diiranteeg moom mba day diiranteeg moom mbagg waaye yónnent yàlla Moussa ban intérêt lay am ci maa fi raw ba yàlla di ko nattoo li may wax ñi ne looloo tax yàlla nattoo ko xadir lay lay c'est faux du dëgg xam nga lu tax waliyu xadir ñëw c'est très simple yonent boo gis day nekk yonent waaye xut bu zamaanam du doon moom yàlla moo séparé pouvoir am noonu ma indi ci benn waxoon naa ko fi yonent yàlla Suleymaan ci jamonoom xut bu zamaanam mooy ka yàlla joxoñ ca alxuraan wa qaala indahu ilmun min alkitaabi ana aatihi bihi qabla an yartada tarfuk kooko yor nekkoon xutbul fardul jaame ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moo nekk yonent incarné waale xutbu zaman ku dul moom amu ko loolu yàlla day wane pouvoiru yonent bi moo tax bi yonent bi génnee àddina sallallahu alayhi wa sallam xutbaaniya gi toxu ci sayyidatuna Fatima moo tax nga gis Seydina Aboubacar daawul def lum diisoowul ak Seydatuna Fatima six mois après bi Seydatuna Fatima génnee àddina la xutbaaniya gi toxu ci Seydatu Seydina Aboubacar as-Siddiq waaye diiraa li di dund moo incarné xutbaaniya gi moom dong moo mës a nekk jigéen ci kaw suuf nekk xutba gis nga ñett yi rek yàlla yàlla xañ jigéen moo tax kuy sous-estimer jigéen danga dof ñett rek la ko yàlla xañ te xam nga lu tax mu xañ ko ko yéenewu ko coono ba ca ne lii rek la waaye du leneen xañu ko ko ndax eh, kii dafa matadi wala ni ko gars yi di waxee ndaw si jigéen ñi dañoo matadi ku mat góor ñee matadi déet yàlla rek a man waaye bu dee matadi kañ ñun ñoo matadi safaari càmmoñ yi man manqué na benn man sama bos manqué na benn góor goo ci gis faaru càmmoñ góosam manqué na benn te jigéen ñi seen faaru càmmoñ yëpp mat na moo tax faw nga takk ci pour mottali safaar faaw nga takk ci pour mottali safaar wi demoon ngay indiwaat jeex na yow yaa matat alaaji Ousmane Gueye nag moo daan wax ne li tax góor ñi di ko naxee ne ko yaay boroom kër gi mu ne dañ seet dañ seetlu coono bi muy dafa daj buñ ko boolee wan ko ne ko yaay surgaay kër gi àddina tukki mu ne ndax kii dem ca marché ba yenoo yendoo yenu ba jant bi so wala mu dem ci biroom léeg ñu àngale ko léeg ñu yuuxu ko dajale lam am yépp weer dee mu ñëw di neexal xale bu tuuti ci kër gi naan ko am tiyel ci lii nga fay ci courant bi fay ci ndox mi génnee ci dund bi incha allah après li ci des dinaa ko mottali di négocier ak moom te yow yaa ñaq sa ñaq ba pare mu ne yaa kooku ko yilif moo la yilif waaye bu dañuy bañ nag nga joxe sa alal ba noppi ñu yilif la ñu naxee la ne yaa yilif waaye <laughs> góor dañ koy nax rek ak sikkimam ndeysaan mu mu yaakaar ne moo ca nekk ah. dañ koy nax rek ak sikkimam mu yaakaar ne moo ci ne fee newul ci dara dara dara dara yow feyeku nga sa solde ba mu jeex nga ñëw fekk benn jigéen ci kër gi imaam mii li muy baax baax noonu lay def man mii noonu lay def keneen noonu lay def keneen noonu lay def waaw soxna si téyel ci lii nga fay courant bi nga fay ndox mi ak jàngi xale yi euh, dépense bi xam naa ne du mat mais après incha allah dinaa ko après boobu ba yow mal xiyaam jigéen ñee koy mottali du ñoom waaw yaa kooku ko yilif xanaa yi ba ngay liggéey sa xaalis gañ soxna si fekkewu ko te moom mu ngi xaalisam pourtant waaw alaaji Ousmane Gueye nag ne buñ la ne <laughs> yaay dañ la yilif ci kër gi sa xol jeex parce que da ngay joxe sa alal ba noppi joxe sa doole ñu yilif la mu ne ñu naxee la ne yaay borom kër gi ngay xuutar xuutaree nag naan waaw añ bi sotteegul mu ne añ bu sotti sax yow xamoo ko kaay lekk rek nga ci am kaay lekk dong nga ci am waaw kon jigéen li ko yàlla xañ foofu dinaa ci taxaw tuuti benn bi mooy ci miraas te mu lëmbee àddina bi tey buñ ne góor ñaar jigéen benn ñu ne non dañ wala égalité parité petite patata yàlla lum def xam na ko li tax góor ñaar jigéen benn jigéen soo amee milliard moo ko moom góor su amee milliard moo jigéen a ko bokk sa soxna tey bu dencoon cinq cent millions ñu di la génnee lu yaa si deux cent mille su ko neexee mu ne fayuma tey fayuma ëllëg demal nga lijjanti ji loo ko fayee su ko neexee mu denc quatre cent mille ci armoilam cinq mille francs bi nga koy jox depanse mu ne la demal reyanti ji ko indi ko waaye sama cinq cent mille lii dërëm du ci toj waa ki nga xam ne lu mu am moo ko moom yow loo am bokk koog moom est-ce que war ngeen na yemle waru leen a yemle moo tax yàlla ne góor ñaar jigéen benn surtout te jigéen boo gis bu amul fu mu dëkk bu demee kër càmmeñam ñu fat ko góor nag fu muy dem ñu fat ko nañ wax nañ waxante dëgg góor fan lay dem ñu fat ko jigéen bu jaaxle boo demee sa kër càmmeñ mu fat la léegi mu fat la gis nga condition yooyu moo tax yàlla ne góor ñaar jigéen benn ci miraas bu dee ci wàllu daraja nag ñett yi rek la yàlla xañ jigéen te coono ba ca nekk moo tax yàlla yéenewu ko jigéen mooy nekk bu yonent li dal yonent yàlla Moussa bu doon jigéen la tey fu mu jëm ah xoolal li dal yonent yàlla Muhammad bu doon jigéen la tey fu mu jëm ah? anbiya u yëpp xoolal li leen dal bu doon jigéen la tey jigéen lañ tey fuñ jëm coono bi ci jihaad coono bi ci réglé coono bi xëcc sa sikkim di jaar ak yow fii yàlla yéenewu ko jigéen moo tax yónni wut benn yónnantab jigéen benn ñaar nekk xutbu xutbul fardul jaami rekk lañ xañ jigéen waaye jigéen mën na nekk xutbu mën na bokk ci aqtaab yi waaye fardul jaami la du doon loolu coono ba ca nekk yàlla yéenewu ko jigéen moo tax mu ne mu teggil ko jigéen ak nekk ilimaan nekk ilimaan moom dafa ñaaw sax moom jigéen mu nekk ilimaan ah boo jiitee Mansour gi àddina tukki la jàkka ji yëpp seen njàpp dana toj <laughs> loolu mooy loolu rek doy na sëkk ah, nañ foofu laay yemale ndax man dee leen nañ damay ëppal waaye yaakaar naa loolu rek pour modérer sama kàddu rek yaakaar naa ne buñ jëloon jigéen tey def ko imaam jàkka ji yépp ku yeesal di nga ñëwaat ku yeesal di nga ñëwaat dem yeesaliwaat <laughs> waaw yàlla lu mu def nañ bàyyi noonu nañ bàyyi noonu moo gën ku fekk benn jigéen mu ne wat wataral nekk ca minbar ba góor ñi nekk ci ginnaaw ah man de duma topp ca gannaaw man xam naa bu rukkoo amee ak sujud falaa dina di tukki yàlla nag yooyu yooyu mu teggil jigéen coono ba ca nekk lay dawal jigéen rek jeex mais bu dul yii daraja bu jigéen di am góor di am mën na ko séddoog jigéen inna al muminina wal muminaat wal muslimina wal muslimaat wal wa wal qaanitaat ba laaya ji hmm? kon nag lu góor di am rek jigéen dana ko am inna al muslimina wal muslimaat wal muminina balaa ñu naan mu nga yàqati alxuraan bi inna al muslimina wal muslimaat wal muminina ji jeex yépp cër yépp yàlla daf ko yemaleek jigéen gis nga bu ñuy wax yemale ci mbindeef la waaye ñoom ñu jigéen ñi ci seen bopp xam nañ ne góor ak jigéen na sa'yakum la shatta yàlla wax de man waxuma de yàlla ne inna sa'yakum la shatta seeni mbir góor ak jigéen lu ute la du benn organes yi du benn mën-mën yi du benn kattan yi du benn yeneen ak yeneen dara du ci benn sàcc rek bu duggoon ci kër gi tey lu ñuy lu ñuy njëkk a wax xanaa góor amul ci kër gi dëgg la wala dëgg ah, waaw jeex na bu agresseur noonu cëpp fii xanaa góor amul ci koñ bi la ñuy wax jeex na dafa am yoo xam ne góor a ko mën am yoo xam ne jigéen a ko mën jeex na waaye yi ñuy wax yépp yoonu lislaam nekku ci lislaam xàmmeewul ku góor ak ku jigéen lislaam daal kim xam mooy ku baax ca yàlla ku baax ca yàlla kooku la yàlla xam te dina ñëw léegi ku mel ni saydatuna Maryam xoolal cër bi mu am ku mel ni asiyatu xoolal cër bi mu am ku ko mel ni rabiyatul adawi xoolal cër bi mu am ku mel ni saydatuna Aïcha yegg ba ci siddiqiya ci martaba siddiqiya te siddiqiya moo sës rëkk ci nubuwa te saydatuna Aïcha daan na ko tiitaroo ne anna siddiqatun bintu siddiq daf ko daan tiitaroo daf daan jël loxom bu tedd bi teg ci dënnam ne anna ana siddiqatun bintu siddiq man yegg naa ci martaba siddiqiya sama baay siddiq la muy seydna Abubakar siddiq kon jigéen ñi bu leen kenn naxee toog leen fii ci wàllu yàlla jaamu leen seen borom ba ngeen xam ne yàlla am na ñu beral loxo te ñam beral loxo nag mooy ñi koy jaamu dinaa ci tudd kenn am na soxna su baax suñ daan wax banne njaay taalibe Serigne moor Diop yi may déglu danañ ko xam banne euh, euh, enseignante la woon waaye taal sëñ moor Diop moom xam nga li ko yàlla dimbalee mooy taalibeem yëpp a ñeme kurus sëñ Mor moom loolu la ko yàlla dimbalee taalibeem yëpp a ñeme zikkar moom boo ñemewul zikkar sax bul jéem a nekk taalibe sëñ Mor sëñ Mor Diop moom pour nga nekk taalibe moom foog nga ñeme kurus moom boo ak jigéen nag moo tax yàmbar du fa ne de foofu mukk sama kalaas gi duñ fa jege ah man mos sëñ Abdou Aziz sàmb ca Mbour mos na am genn gan gu taxat du ma tudd turam sëñ Abdou jox ko néegam néegu boppam sëñ Abdou nag néegu boppam dafa am kuréel si junni te sëñ Abdou kii la comme ñépp niñ koy waxee ti nitu tubaab la waaye yàlla daf ko dimbale yéen ñëpp xam ngeen ko gan gi fanaan fa nag xëy <clears throat> di nekki ne Abdou Aziz yoo yow sa néeg bi baax na démb jaamu naa yàlla si ñabdu ne ko am mu ne ko def naa junni latif <laughs> mu ne ko laa moom mbeysaan mu ngi rëy ci moom mu ne ko fii biig jaamu naa yàlla mu ne mu ne ko def naa junni latif ci sa kurus googu sëñ ma ne ko yow maa awa mii di def douze douze mille latif nga naan mooy maam awa mooy ñaareelam maam awa mii di def douze mille latif yow nga nekk fii daal def naa junni latif xam nga kooku junni latif ba rëy na ca moom waaye nag loolu la mën loolu la mën Banne Njaay taalibe Serigne Mor Diop la ñi xam sëriñ Mor koo wax Banne xam na kuy Banne taalibeem yi jigéen ñi ca jamono 93 li may wax nii 93 laa ko xamoon ci sëriñ moor génn na àddina nag ma damay wax ni mu génnee àddina moo tax ma tudd ko dafa dem Fès fekk lim daan sikkër ci salaatul faatihi kenn xamut nu mu toll lu ne la ci daan gis mu dem fees ne daal li ñuy wax ci Seydina Cheikh mi bu fekkee dëgg la am dog bu mu def ci salaatul faatihi mu ne fi mu toog moom bànne la dégg tararar comme dënnu nee na mu laaj ndax dafa xiin day dënn ñu ne ko déedéet ñu fii dégguñu benn dënn dënn yooyu ko yóbbu àllaaxe bi mu ñibbisee dënn yooyu la continé di dégg ba ni mu génn àddina fu mu toog dégg taarararar comme dënn comme tonnerre ku tonnerre te salaatu faat yi moo ko ko man daf daan waxtaan ak man bu baax ma xam ko bu baax a baax bu jigéen bu sell te enseignante la woon bu xëyee gàddu saagam di dem di jàngale ji doone kii xam na dara ci yàlla kon nag loolu dama ci taxaw pour nit ñi ñu xam ne góor ak jigéen ku ci jàmm yàlla yàlla teg lim li nga mérité woo ci sa loxo nga dem yenn cër yi sa xëcc ko ak ndox la jaru ko di moo tax nag li ñuy wax ci yoon ci yàlla Moussa yëpp du dëgg naan dafa waaraate woon ba yëkkati loxoom ne xanaa dëkk bi kenn rawuma fi yàlla nattoo ko du dëgg loolu c'est foo amut li am mooy Yusa moo desoon ci taalibe bi war koo doon moom yont yàlla Moussa yont yàlla Moussa xam na ne Yusa moo koy doon te xam na ne bu ko fi bàyyee mu dajee ku ñuy wax waliyu xadir te waliyu xadiir di xut bu zaman su ko su mbëkkantee ak moom moom mooy gaañu moom yusa waaye xadir dara du ko dal mu bañ confrontation boobu am mu ne yusa kaay gunge ma lii rek la li ci nit ñi di xotteeku yëpp du dëgg te alxuraan noon la ko nettalee waaye nañ yem ci ni ko alxuraan nettalee ci suratul kahfi aywa ñu jël ko ñu jël ko li ma wax bare na de waaye aaya bii rek laa doon layal li ma wax yëpp pour aaye bii rek laa doon layal wane ne c'est faux waaw na leer yoon yonent yàlla Moussa mosul dotom ci yàlla musaa bàkkuwul bàkku kañ xanaa mu ngi yem ci nga xam ne yaay yonent dafa jarati bàkku président Macky Sall bu toogoon fii naan man rek maa fii président day ñàkk fayda ji parce que ñëpp xam nañ ne moom mooy président waaw waaye bu toog bu est bu toogoon fii naan waaw Sénégal moom nañ xam ne man rek maa fii président bu yàggee day ñàkk fayda gi ab yonent noonu la mel ab yonent xam na ne yàlla ko yónni moo raw ci réew mi président Macky raw fi waaye tey pouvoir yëpp ci loxoom la ne jeex na ab yonent tamit day boole yëpp nag day boole raw ñëpp pouvoir yëpp nekk ci loxom wa illaa du nekk yonent doole yàlla lay yor ci kaw suuf parce que kon bu dul loolu mission du mat kon buñ ko laajee mujiza génne ko fu mu koy génne mënul nekk ah jeex na léegi nag ñu dem yàlla moo bari doole loolu ca kanam lay ñëw mu ne wa fàttalekul is jamono ba nga xamee ne xaala wax na muusee yonent yàlla muusa li fateehu wala li fataahu kuy jàng war xafs taalibeem ba kon leerul waaw waaw lu ci indi daf doon waaraate fii waa yàlla tudd na fi waaraate ah man de alxuraan laay wax moom laa tiim nii waaw ah. hmm. damay yéeg ci kaw sax xool wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina wa yujaadilu alladina kafaru bilbaatili li yudxidu bihi alxaq wattaxazu ayaati wa ma undiru huzuwan wa man adlamu mimman zukkira bi ayaati rabbihi fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadaahu inna jacalna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi aazaanihim waqran wa in taduhumu ila alhude falan yahtadu izan abadan wa rabbuka alghafuru zu rahma law yuaxizuhum bima kasabu la ajjala lahum alcadaaba bal lahum mawcidun lan yajidu min dunihi maw mawila wa tilka alqura wa tilka alqura ahlaknaahum fa lam lamma zalamu wa jacalna li muhlakihim mawidan door a indi nag wa iz qaala Muusa yàlla dafa njëkk a wax ne bu ma leen yónnee ba noppi garanti bi ñuy am ku leen weddeeti ma alag la loolu rek doy na garanti ku leen weddeeti ma alag la ne amul ku gën a mën a tooñ koo xam ni boo ko waxee du dégg du gis dëgg du dégg dëgg di weddikat loo wax mu ne ay foo la yàlla ne su ma doonut jéggale sama yërmande toftalu ci yéen ñépp jàpp naa leen yóbbu leen fa ma leen war a yóbbu mu ne waaye nag yàkkamtiwu ma kenn ku nekk ci yéen na xam ne am na dig bu ma koy xaaree waaw boo xam ne bu yegsee kenn du doxati sama digganteeg moom mu door a indi nag wa fàttalekul dama bañ ñu yàgg ci yoon wi te comme suñ gan yi ñëw nañ dañ leen di jox kàddu wa fàttalekul is jamono ba nga xamee ne xaala wax na muuse yonent yàlla muusa li fateehu ñeel taalibeem bi laa abrahu xatta abluga majma al bahrayni aw amdiya xoquban mu ne ko la ko jiitu xam nga alxuraan day xasaf ndax alxuraan bu doon détail yëpp da koy indi xanaa da ay magasin magasin lay doon waaye benn baat lay indi mu tënk mille baat ci yàlla musaa dafa ut ñetti jën te yooyu cax la dafa ut ñetti jën fiiriir leen ba mu wow fekk suñ borom moom musaa alayhi salaatu laaj na suñu borom fan lay tase ak wali yu xadir wali dafa bokk ci ñi dul dee ñi yàlla bind éternellement ñuy dund te duñ dee wala yu ci la bokk Cheikh Al Hadj Fouti ci la bokk wali yu xadir suñ waxee ñi dul dee nag dangay dem imam waaw waaw waaw insha allah baax na jërëjëf imam Abdoulaye Fall mooy tàggoo noonu waaye ah buñ sa doon kaay kaay nga jël ci kàddu rek jàngukaay ñu ñu may ñu rek alxuraan kenn du ko dagg waaye moom yaram wi moo xaw a sutaate jox ko micro bale rek ñu door a continuer toogal ci kaw mu mu tàggoo yaram wi xaw a sutaate jox ko ah ban. Hmm. bismillah imam jox ko micro bi ah, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di ci nuyoo bu Chérif Ibrahima Aydara at Tijaani di ko indil ah, nuyoo waa Seras yëpp di ko commencé ci directeur général bu bees bi ñu koy wax Arona Ba nee mi ngi lay nuyu mi ngi sàkku ci yow ñaan te di la ñaanal yàlla mm-hmm. ah, nee na taala siise mi nga xam ni moo fi nekkoon te doon sa wëllëre mm-hmm. nee na bala muy sàkku ci yow njaal mais na mi ngi la koy jaale boom ci boppam ci mm-hmm. wax ni li taala siise tegoon tànkam foofu la fas yéenee teg tànkam incha allahu moo tax teraanga ba mu daan joxe joxe na ko ba indi nañ ko mi ngi ci suuf waaw di la sant di la gërëm di rafetlu tamit ni nga doxale mbir mi ndax explique nañ ko nee nañ ko shérif moom dafa am ay kilifa ndax waa Tiwaawoon ubbeeguñu mm-hmm. <coughs> waa Omarien ubbeeguñu mm-hmm. kon du teggin moom it muy def benn conférence wala muy dem ci benn jumaa waaye nag conférence yi mu daan def surtout première ajjuma ci weeru koor nga xam ni daf koo jagale woon waa Seras ba léegi loolu amul changement amu ko doon defee noonu la koy defee këram directement incha allahu nee mu ngi la ci ndokkeel bu baax waa Seras tamit nee nañu ñu ngi yaakaar ci yow ay ñaan xam nañu sax fàttewoo leen waaye nag ñu ngi gën tàllal seen loxo di gën a feddali seen wëllëre ak yow mm-hmm. ah, bu di ci boole nag di la annoncé kii nga xam ne mooy Ibra Fall mm-hmm. ah, di suñu doom di suñu lépp mm-hmm. léegi dafa bokk ci imaamu jumaa ji léegi day jiite foofu fa tabaarakallah macha allah ndax sama ànd ak moom sama doom la waaye dafa taqoog man lu ma lu ëpp fanweeri at ba ñu tegee première pierre ci jumaa ji ba fii ma taxaw di wax ak yow ma masul tàggoog man benn yoon lépp lu nekk ci jumaa ji shérif muy haut di micro di lépp moo ko jënd ci xaalisam def ko ba léegi jumaa ji micro yu sophistiqué la am ak ay ay haut-parleur yëpp la modernisé te yëpp moo ko def ci euh, xaalisu boppam daan nga dégg tamit mu di a wax ni man di dama bëgg nga ñaanal ma ma am ma am alal ba jënd daara alquran def ko li wajilaahi taala nee na mi ngi feddali tamit ñaan googu waaw ndax yaakaar rek moo ñu indi fii fii yaakaar moo ñu fi indi te xam nañ ni yàlla sëñ Omar si daana wax ni ku la ni man sama lu ma lu ma yaakaar mu tas nee ko booba yaakaaroo yàlla mm-hmm. waaw kon nag ñun Chérif ah am nañ ci confiance te soppal nañ la suñu bopp ba yëgal ko suñu bopp sopp nañ la ba yëgal ko suñu bopp ñun ñëpp nag kon nag wax ji li ci des incha allahu dinaa ko jox ibra moom dina ko mottali parce que man sama yaram moo xaw a naqari de kon damay toog ak yow ba nga yeewu ma waaw waaye xam nga boo jógee ci opération bu bees docteur bi ne bul toog sax lu yàgg mm-hmm. waaw loolu nag moo tax waaye yow mm-hmm. tollu nga ci man foo xam ni xam naa ko ah <laughs> <laughs> kon nag foofu laay yëm loolu xam naa alhamdulilahi rabbil alamin ñett xamuñu waaye ñaar alhamdulilah macha allah mhm. kon nag ñu ngi ñaan rek nga yeewi ñu ñu doxantu ndànk dem kër ga bàyyi fi ibra incha allahu waaw kay macha allah may jégalu nag ci dagg alquran bi parce que waaw maa ngi ciy jégalu baax a baax waaw jërëjëf jërëjëf Chérif jërëjëf Chérif ku fonk alquran jërëjëf boo ko fekk mu ngi jukki alquran di jàng jërëjëf waaw moo tax ma ma jox ko ndax xam naa ne waxu alxuraan rek. alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf ma ko sayit mbokki jullit yi ñu sant ko bu baax imaam alxaaji Abdullahi Fall wallahi yàlla xam na ne seq nañ lu bari maag moom loo xam ne gémmiñ du ko tudd waaye nag ñama ko war a waxal sax wax ku mel ni Sidi Kunta yu ci bari wax naa ko ak moom yoo xam ne dox na sama digganteeg imam mi fa tabaarakallaahu dañ koy ñaanal yàlla rek wér ak wérle mucc ak mucc le waaw ba lim bëgg ci diine ji ak euh, tarixa bi yàlla defal ko ko moo tax mbokk yi kon ñu continuer mu ne waa fàttalekul nag gis nga yonent yàlla Moussa bi muy ànd ak taalibeem bii ñuy wax Yusha dafa ut ñetti jën dafa laaj suñ borom ne ko wali yu laa bëgg nga wan ma fu may taseeg moom suñ borom ne ko yaa ngi dajeeg moom diggante ñaari géej yi géej gu neex gi ak bu wex xorom bi fañ tase foofa ngay tase ak moom yàlla xamal ko it ne ko melokaan wa mu yor neexu la ràññee waaye utal ñetti jën nga fiiriir leen soo leen fiiriilee ba mu ñor nga jël jën wi def jën yi def ci sa mbuus jox ko sa taalibe bii ñuy wax Yuusa ngeen takk yoon pour dem seeti géej googu fan la croiser ñaari géej yooyu mooy bu neex bi ak bu weex xorom bi ci la jël ñetti jën nag fiiriir leen def ci mbuus mi jox yuusa taalibeem bi moom la alxuraan di nettali nii moo tax mu ne waa fàttalekul is jamono ba nga xamee ne xaala wax na muuse yonent yàlla muusa laa abrahu xatta laa abrahu duñ dëj mukk xatta abluga majma al suñ dox bi maag yow du ñu arrêté lu lu dañoo yegg ci diggante fi ñaari géej yi tase aw am diir xoquban fa lamma balaga majmaa baynihima nasiya nuxuutahuma fattaxasa sabilahu fi lbahri saraba biñ yegsee nag euh, xaaral ma xool ba bi ñu yegsee ci nga xam ne ñaari géej yaa ngi fa tase fekk dañoo dox ba sonn ñu jël benn jën lekk ñu doxaat ba sonn jël beneen jën lekk mu des benn xam nga biñ doxaate ba sonn nag toog ci benn montagne benn doj di dallu pour wala traverser nag pour dem traverser géej gi pour dem fii Yuusa teg jën wi mbuus mi ndekete jën wi rocceeku na jën wuñ fii riir jën wi rocceeku na ci biir mbuus mi ba dugg ci biir géej gi ci jën wuñ fii ba lekk ay moromam laa wax de <laughs> xaw ma dégg nañ li ma xoola déet lekk nañ ñaar mu des benn benn ba des moo génn ci mbuus mi te fii riir nañ ko ba noppi kañ léegi nag fu moom la alxuraan di wax ni nasi mu ne fa lamma balaxa majmaa baynihima nasiya xuutahuma fa mu ne nasiya fàtt nañ xuutahuma seen jën wa fa taxasa ca saasa mu jàpp sabilahu yoonam fil baxri ca géej ga saraban di daw fa lamma jaawaza ba nga xamee ne jéggi nañ nag xaala wax na maanaam bañ jéggee géej gi dex gi xaala wax na yonent yàlla Muusa moo wax li fataahu ñeel taalibeem bi ne ko aatinaa jox ma xadaa ana suñu añ bi benn jën wa desoon mu ne ko léegi jox ma ñu ñu ñu lekk jën wi mu mu jël mbuus mi gisul dara lu mu ca teg ndax xam nga def ko ne aati naa jox ñu xadaa anaa suñu jën wi laqat ca dëgg-dëgg laqi naa tegoon nañu min safari naa ci suñu tukki bii haza bii nasaban coono comme coono daj dab ñu nag indi wenn jën wi ma lekk ñu lekk ko xaala yuusa ne ko araayta ah xanaa gisoo is away naa ila saxrati bañ toogee ca kaw montagne wa fa inni naka man sa taalibe bii di yuusa nasiitu dama fàtte alxuuta jën wa foofa laa ko fàtte ca montagne wa ma ansaaniihu dara fàttalewuma ko illa seytaane lu du seytaane an azkura ngir ma fàttaleku ko falaa fàtte jën wa biñ biñ ñëwee nag wa taxal fekk nañ sabilahu jën wa fil bahri jël yoonam ca géej ga dem ajaban muy lu yéeme ajaban kay ajaban muy lu yéeme suñ borom nee na biñ ñëwee ñoom ñaam nag daf ko ne fàtte naa jën wi ca montagne bañ toogoon biñ ñëwee ci montagne bi di seet jën wi fekk jën wi jël yoonam bàyyi trace nag ci géej gi encore suñ borom ne lu yéeme lu yéeme jën wi demut yem ca de mais dafa bàyyi trace ñu xam ne fii la jën wi jaar ñu gis trace bi ci kaw ndox mi boobu da leen di tracel ne fii mooy séparation diggante géej gu neex gi ak gu naqari gi luy <laughs> rek la waaye du leneen lii kese la waaye du leneen boobu tracé boobu ñu gis daf leen doon tracel ne lii à mooy géej gu neex gi lii à mooy géej gu naqari gi xam nga neexul xam demal saint lii fa nay ñaari géej ya daje loolu yàlla yàlla defal na ko waa ndar demal Saint-Louis fa géej ga daje ak dex gi mënoo bël ga mënoo xam moo tax baynahuma barzaxun barzax mooy diggale diggante waaye barzax foofu la nekk tamit loolu beneen beneen beneen détail la marajal baxrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabgiyaani fa bi ayi alaai rabbikuma tukadibaan booba jën wi loolu rek la doon tracé moo tax ba muy dem mu bàyyi trace pour wane ne à droite mooy géej gu neex gi à gauche mooy géej gu am xorom la tracé bu boobu nag foofu la yónnanti yàlla Moussa soxla woon bañ wëññeekoo nag fa la histoire bi amee xaala yonent yàlla Moussa ne foofa ñu toogoon maa kunna nabari foofa laa soxla fartada ala asaarihima xasasan mu ne ko gis nga foofu histoire bi ma soxla foofa la nekk niñ delluwaat biñ delsee rek fa wajadaa <laughs> kañ ah xam na lu ne man waxuma de alxuraan wax te li alxuraan wax waxu yonent yàlla Moussa bu yàlla nettali na waaw kañ nañ déglu bu baax xaala yonent yàlla Moussa ne ko zaalika foofale zaalika loolu le maa kunnaa nabari loolu laa nekkoon di mébét mooy sama mébét fartadaa nañ wëññeeku ñun ñaar wala fartadaa wëññeeku nañ ñoom ñaar ala athari hima topp seen tànk mooy topp seen njeexit xasasan ngir histoire bañ demee nag ca montagne ba fàcce saasa rek waja ñu fekk fa abdan ab jaam gis nga yàlla jaam la ko tuddee min ibadina tukkee ci sama jaam yi man yàlla boobu nag aatay naahu jox naa ko rahmatan yërmande lu mu def yërmande la min indina bu jógee fi man yàlla wa alam naahu ma xamal ko min ladun naa tukkee fi man yàlla ilman ab xam-xam dégg nga wax ma yoon ci yàlla Moussa ñëw ngeen baal ma ma def yu tafsir gay yi yoon ci yàlla Moussa bi mu yegsee rek parce que jàngale la bi ñu yegsee ci montagne bi automatiquement rek xam nga dafa ne fa ca saasa waja daa fekk nañ ab dan ab jaam xam nga nuñ ko fekk mu def dañ ko fekk mu bànk sàngoo sàngoo mbubb mi sol mbubb mi mu sol la sàngoo banku yoon ci yàlla Moussa ne ko pëkk-pëkk maa ko naa nabara nabari yow laa soxla woon yow bi mu nee xifeet rek ne ko yow lan la xam nga pour pour jéem a naqari naqariwul lu deret waaw li li ma si lakkan di wax nee na nijaayam dafa naqari deret naqari deret naqari deret ba bu yumpaañam toggee añ bi teg ne ko nijaay añ bi pare ne mu ne maa tey xam nga naqari deret fa la yem nijaay añ bi pare na maa tey nijaay reer bi pare na maa tey waaw masin la kan moo koy nettali ah, bu baax bi la alaaji masin la kan nee na benn nijaayam bu naqari deret waaw waaye yoon ci yàlla Moussa naka la ko nekk pëkk-pëkk ne ko yow laa soxla woon mu ne xifeet ne ko yow lan la loo may yee lan la loo may yee mag muy nelaw nga yàq nelawam lan la ci yàlla Moussa ne ko du dara man yow laa soxla woon xaala wax na ko la ñeel ko Moussa yonent yàlla Moussa hal atabiuka ndax danga ma mën a may ma ànd ak yow Yuusa lay jàngal wax naa la ci début ba ne Yuusa la bañ mu yàqule te xam na ne dina taseeg waliyu xadir ci jamono te bu taseeg moom mu jëfandiku mu weddi ko dana yàqule mu bañ mu yàqule nag mu ànd ak moom lii rek la du lenn lii rek la kese lu ci nit ñi mën a wax li muy bari bari c'est faux moom ndonoom lay protéger parce que euh, diiran xam nga yoon ci yàlla Moussa dina ñëw ci fin bi xam nga ñaata at la dund cent vingt ans liggéey boobu yépp mu mu mu yekk ko yekkal ko ku ñuy wax Yuusa mais du seetaan ku yàq liggéeyam te yuusa mii bu dofee ba mbëkkante wali yu xadir fa lay yàqulee ba faw te wali yu xadir neexul a xàmme déggoo li ma wax nii bu leen yàlla dimbale wutoon fu ñu koy xamee yonent bi salaay salaam nag moo ñu dimbale nee na foo ko tuddee nee na ya yonent bi nee na salaay salaam nee na yàlla mayut kenn ci kaw suuf nga xëy mën a tudd wali yu xadir te du fekk daf fa jaar ba dem nga door koo mën a tudd pouvoir boobu la ko yàlla defal salaay sallam nee na amul ko yàlla bind ci kaw suuf nga mën a xëy rek tudd wali yu tudd ko ci sa gémmiñ lu dul dafa jaar ba dem nga door ko mën a tudd kon jaar na fi ba dem kimtaan la yonent bi ko te wa maa yantiqu anil hawa yonent bi du wax ci bànneexi bakkan in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa ko alquran la waaw kay yuusa boobu nag moom la yonent yàlla Moussa doon protégé bañ mu yàqu moo tax moom rek la àndal li fataawu rek la wax de taal benn taalibe la àndal muy yuusa te dina ñëw ci fin ba mu ne ko yonent yàlla Moussa ne ko xaala yonent yàlla Moussa ne ko lahu ñeel waliyu qadir xaala wax na lahu ñeel waliyu xadir muusee yonent yàlla muusa ne ko hël ndax attabiuka duma la dooma mën a may nga topp ma ma topp la ala ci kaw an tuallima nii nga jàngal ma mimma ci li nga xam ne ullimta jàngal na la ko suñu borom rusdan di njub mu ne ko dafa am lu la yàlla jàngal ma bëgg yow nga jàngal ma ko ku raw a ah, jeex na kii jàng si ne nangam bii laa bëgg nga jàngal ma ko xam nga ne xam na ko ba dëgg la wala déet jeex na de waaw wali yu xadir yàllaa ko may don di wax ak moom muy dégg waaye ci lu dul wax yu di wax ak yonent yàlla Moussa ci wax yu ak ci asma ndax asma wa ara inna maakuma asma u la ko yàlla njëkk a wax wa ara aywa ñu dem mu ne ko xam-xam bi la yàlla sotti ci yow laa bëgg nga yekkal ma ko xaala wali yu xadir ne ko innaka naka yow muusa lan jamais au plus grand jamais kon xam na ne moom it am mu ne ko mukk mukk mukk mukk mukk lan fu ko arab waxee rek mooy jamais au plus grand jamais du am mukk kon ñoom ñaar seen ànd yomb na kii xam na ne mën na ànd ak moom kii xam na ne kii mënta ànd ak man mais lu tax ñu composition composition boobu ñu def ko pour ànd yuusa la ñuy jàngal xam nga lu tax neex naa dégg wali yu xadir yàlla daf ko booyal lu ko neex def te mu def am na dalil am na fu mu ko teg loo xam ne yow mii xool xamoo teguwaay bi waaye moom xam na ko xam nga noo koy déggee agent secret buñ ne demal jàppal ma ki rey nit ki mën na ñëw fii sol yërey dof nga foog ne dof la fekk du dof toog fii ci mbedd mi di tux yàmbaa nga foog ne tuxkatu yàmbaa la fekk du tuxkatu yàmbaa tuxkatu yàmbaa yi la bëgg a jàpp agent secret yi dañ koy def te moom yàmbaa jom yooju kenn du ko ci topp de yàmbaa jooju muy tux moom kenn du ko ci topp ndax daf koy tux pour jàpp tuxkatu yàmbaa yi léeg nga gis ko yi mu yor drogue di sinéfe du sinéfe la ñuy xaw ma di sinofe nga yaakaar ne euh, fóonkati drogue la fekk euh, drogue maan yi la bëgg a jàpp moom drogue boobu muy fóon kenn du ko ci topp dara parce que dañ ko yebal pour mu jàpp ñii dorogewu bu demee beneen leen kirtim nag la ñuy xam ne kii duwuloon bon man bonkat yi la bëggoon a jàpp waaye kii du tuxkat mais si obligé pour mu tux pour mu jàpp tuxkat yi dan daf koy jaral it mu dem ca baar ba di màndi bay tërëf fekk du màndikat dafa bëgg a jàpp gaay yi buñ demee ba jàpp chaîne bi nag nga gis ko mu dem correctaat sol tenim dellu ca commissariat ba toog dafa mission bu mu doon dox voilà wali yu mission yàlla la nekk mission yàlla boobu nu mu neexee yàlla rek noonu la koy defee yónent yàlla Moussa yàlla yónni ko pour ne ko ordre laa bëgg ci dëkk bi ordre laa bëgg ci dëkk bi ku rey nañ ko rey ku sàcc nañ ko tëj ku def lii nañ ko def lii mooy charia charia bi laa teg ci sa loxo ndax yonent yàlla Moussa amoon na charia charia bi mu teg ci loxoom nag bul gis mukk yow Moussa ku koy salfaañee nga noppi loolu la ko yàlla sant boole ko koo xam ne daf ko ne lu la neex defal te ne kii ne ci yàlla Moussa fait très attention kii lu mu wax maa ko wax lu mu def maa ko def donte juunu na est-ce ñaar ñii seen ànd dana yomb du yomb gardien de la constitution la pour mu leer gardien de la constitution la moom dafay garder constitution réew mi kii nag dañ ne yow lu la neex defal mais duñ mën a ànd lii rek mooy wax bi ñu dem yaakaar naa leer na de internet yi leer na ci ñoom ah laajal ma leen ndax leer na ci ñoom waaw lii rek la kii nga xam ne gardien de la constitution la moom day garder constitution bi kenn du ko salfaañee ci kanamam kii nag ñu ne ko yow jàppal ma bon maan yeeg ñu lu la neex defal te constitution bi duñ da ci topp parce que ñoo la yebal dégg nga wax bi waaw ah, kañ wali yu xadir ne ko lan jamais au plus grand jamais tastati ngay mën ma iya ànd ak man sabran ci muñ yamay defi gis nga yamay defi doo ko mën a muñ mukk parce que xam na ne kii yonent la dafa am charia mënta muñ yamuy defe te yamuy defe ci bët sharia daf ko tere yoon ci yàlla Moussa ne ko wa kay fa ana naka tasbiru laay muñi maa ci loo xam ne lam tuxit xaw ma bii ca la ngay wax ne danaa ko muñ wala duma ko muñ xubran benn xibaar aw ma ko ci gis nga moom it mu ngi fexe ñu ma àndeek moom rek parce que xam-xam bi la bëgg a découvrir mu ne ko waaye yow itam may ma ñu ànd rek noo may noo may nii yow itam eh? noo may freiné te la ngay wax ne moom ngay defi defagoo ko xamuma la ngay defi lan la mais bàyyil ba nga def ba ma gis mu ne ko ah ca baax na xaala mu ne ko yonent yàlla Moussa mooy wax de ne ko comme man xamaguma sax lan la sa tajiduni di nga ma fekk inchaa allahu ndem soob na yàlla saabiran may aji muñ wala aasi du ma mooy mukk laka ñeen la amran ci mbir moo ma digal gis nga incha allah firiwul ne loo ko wax mu am nee na incha allahu te la mu bëggoon amut <laughs> xam nga incha allahu lu muy tekki mooy nangu naa dogalu yàlla ak nu dogal bi ñëwee rek loolu la incha di tekki de waaye tekkiwul ne loo ne incha allahu bari na ko ne incha te fekkewut suba wala déet waaw kay insha tekkiwul ne loo ko wax day am déedéet day firi yow miy wax ak kii ne ko ba ëllëg insha diggante fii ak ëllëg gëm nga dogalu yàlla yi fii xew loolu rek la de lu ci yàlla dogal rek neex na ma mooy insha allahu nag lu dogal rek yàlla dogal rek neex na la waaw kañ mu ne ko nag insha allahu ma fekk saabiran may muñ wala asi duma moy la ka ñeel la amran ci menn mbir loo ma sant ma def xaala mu ne ko fa ni tabaata nii soo ma toppee falaa tasal nii bu ma laaj nag an shay'in ci dara xatta be uxdisa ma nettali la ka ñeel ci mbir mi ma def zikran xibaar xam nga lu ko wax ne ko acce ñu ànd nañ dem yaag sa taalibe si waaye lenn laa lay xamal ne loo gis ma def bu ma laaj noppil loo gis ma def bu ma laaj noppil dama nettali la li ma def lu tax ma def ko yonent yàlla Moussa ne ko bismillah d'accord na fantalaqaa ñu yéeg rek ci gaal gi xam nga nee naa la ci géej la ko fekk ci tefes gi mu tëdd sàngu mu yee ko tracé géej gi yàllaa ko waxoon ni ko yaa ngi koy fekk fi ñaari géej yi laalante bu neex beeg bu naqar bi xam nga fa la ko fekk nag bañ wëññee ko léegi nag ñu war a jël gaal traversé moom lay nettali nii nag léegi foofu la problème njëkk a amee fantalaqaa rek ñu yéeg xatta isa ñu wéy xatta isa rakiba ba war nag fi safina ci ca gaal ga xaraqaha fekk mu ngi yoroon benn mbuus bu mu wékkoo te kenn gisu ko mbuus bi ndekete ay te naa jag njaasi su ndaw moo ci nekk njaasi su ndaw am naa mooy comme yéen seeraas ngeen jógee yéen a gis ngeen ni mbokki pël yi di def noonu njaasi su ndaw si fii ak ya ca aju yëpp boo ne ko rendil ma nag wii rek aywa yow mi jógee seeraas xam nga li may wax waaw ci saa si dana la ko rendil tojal la ko ba mu jeex ah ñu dugg ci gaal gi rek wala yu xaj lonki mbuusam génnee benn jaasi su ndaw ak marto commencé di toj gaal gi tës tës tës tës tës tës di bënn gaal gi jël di bënn di di toj ah xaraxaxaa mu ngay toj gaal ga xaala <laughs> yont yàlla Moussa ko ndax sharia mayeewul ngay yàq ci kanamu <laughs> ci kanamu ay nit dégg nga bi xaala yonent yàlla Moussa ne ko ah axaraxtaha yow dangay yàq alalu jàmbur sañ ta noppi sañu ko axaraxtaha da ngay yàq alalu jàmbur waxuma sax nag yàq sax gaal gi li tóore xa ngir nga labal nag alaha ñi ñi ci gaal gi yëpp dag ñoo bëgg a labal léegi boo tojee gaal gi gaal gaal gi duy ndox suux ñu lab ñun ñëpp yow kat laqat ji yow kat indi nga mbir moo xam ne shey an mbir moo xam ne ah imran doy na waar de yow li ngay def nii mooy lan xaala <laughs> ah waaw mu ne ko yow kat li ngay def juunu na de ñu dugg ci gaal gi nga di ko toj te ñun ñëpp ñu ngi ci biir gaal gi waxuma la dara yaa ngi yàq gaalu jàmbur gaal gu beesee nii nga di ko toj waaye ñun ñi ci biir nag danga bëgg ñu lab xaala wali xadir ne ko alam aqul ndax waxuma woon lak innaka naka yow mii lan jamais au plus grand jamais tastati a ngay man di attan ma yi ànd man sabran ci muñ yow waxoon naa la ne mënoo muñ yaa ngi nii dama ne la bu ma laaj laaj nga ma <laughs> balaa ñuy war gaar gi laa la noonu bu ma laaj yow benn rek laa def nga laaj ma waxuma la woon ne bu ma laaj xaala yonent yàlla Moussa ne ko laatu aaxiis nii bu ma jàpp mukk bu ma mere bu ma mere laatu aaxiis nii bi ma nasiitu damaa fàtte rek <laughs> bi ma ci li nga xam ne nasiitu fàtte naa ko damaa fàtte rek moo tax ma laaj la wala turxiq nii bul ma bul ma renvoyé mukk min amri usra bu ma togg it ci ànd bi ma ànd ak yow benn jafeñ-jafeñ bu ma ko indi bàyyi rek ma ànd ak yow rek damaa juum mu ne ko baax na nañ dem ñu dem ba wàcc gaal gi dox deux mètres am na ñu ne deux cent mètres lañ dox rek dajeeg benn xale bu rafet mu génneewaat jaasi ji ci mbuus bi ne ko ay eh, goos kaay kaay kaay xale bi ñëw ba yegg si rek mu kutt baat bi baat bi dali fële jëmm ji dali fële <laughs> xam nga ne lii yombut fantalaxaa ñu tasee xatta fantalaxaa ñu ngay dox seen yoon kat xatta isa xatta de isa jamono ba nga xamee ne ñu ngay dox laqiyaa ñu tase xulaaman ak ab xale fa qatalahu mu rey ko waliyu xadir jël jaasi rek kuttu bopp bi bopp bi dal dali fële di caddi caddi xaala yéen ci yàlla Moussa ci saa si xaala wax mu ne ah, a xatalte ndax da ngay rey nag nafsan bakkan léegi a yow nag teeral nga zakiyatan bu sell bakkan bu sell xale bu tuuti bu amagul bàkkaar nga di ko rey yow danga nga dof wala lu la dal bi xayri nafsin te yow gisoo kii benn bakkan bu mu rey nga rey ko yow nag dëgg dëgg dëgg dëgg wali yu xadir laqat ca dëgg-dëgg ji te indi nga chey an mbir moo xam ne nukkuran buñ sip la nag fële lu day waar nga defoon waaye tey nag def nga luñ sip ndax rey nga rey nga koo xam ne gisoo mu rey nit te xale la en plus xale bu tuuti ñeneen ci sept la topp toll six ans sept ans weesuwu ko six ans sept mu kutt bopp bi xaala waliyu xadir ne ko alam aqul ndax waxuma la woon laka ñeel la ne innaka naka yow mii Moussa lan jamais au plus grand jamais tastati a ngay attan may ya ànd ak man sabran ci muñ waxuma la ko woon xaala mu dellu waxaat ko moom yonent yàlla Moussa léegi nag moom léegi nag baal ma waaye léegi dama ciy teg condition Moussa ay wax bi léegi baal ma baal ma waaye léegi dama ciy teg condition ban condition la teg nag xaala mu ne ko in ko su ma la laajatee nag an shay'in ci mbir mu mënatee doon nag baadaha gannaaw bii gannaaw laaj bii su ma la laajatee mbir mu mën a doon falaatu saaxib ni léegi renvoyé ma xam naa ne du ma mën a tee ànd ak yow bu boobaa nag dinaa xam ne xat ca dëgg-dëgg balaxta jot na min la dun nii ànd gi may ànd ak yow osran ngant am naa ngant nag léegi pour ànd ak yow ah mu ne ko bismillah lu tubaab di wax jamais de jeex na jamais deux cent <laughs> ñaar jàll na léegi des na benn fantalaqaa ñu toppaat seen yoon di dem xatta isa ataya bañ dikk ahla qaryatin ci benn dëkk fekk nag ñu ngi xiif foofu nag dañoo xiif sonn biñ duggee ci dëkk bi yoon yonent yàlla Musaa ne ko doo wax gaa yi ñu may ñu ñu naan wala yu xadir ne ko baax na mu ne Yuusa demal nga wax boroom kër ga leen leen ñun ay doxandéem lañ dañoo sonn pour ñu may ñu ñu naan Yuusa dem ci kër ga gaa waaj jël yat topp ko ne fii kenn du fi ñaan liggéey fi am da ngeen di liggéey ñu fay leen ngeen jënd waaye wala ngeen wala ngeen am xaalis jënd te yaruñu dara waaye ndox fii duñ leen may ndox duñ leen may ñam fii jaaye fi am maye amu fi wali xadir xam na lii xew Moussa xam na lii xew waaye ñu ne pat rek fantalaqa hatta isa ba nga xam ne ataya dikk nañ ahla qaryatin ci benn dëkk istatamaa ahlaha fa abawoo ñu bañ ñu ittiwoo ci ñoom ndox ak lekk ñu bañ an yudayifuhuma mooy ñu ganale leen lank ne ñit ne duñ leen ganale ab day duyu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam li moo xam ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu gis nga ku gëm ne yàlla am na bés bañ ci dana am boo amee gan na nga ko teral waaye ñii dañoo lank ñoom fa abaw bañ nañ an yu dayifuhuma ngir ñu teral leen fa wajadaa ci saasa rek ñoom ñu gis fiihaa ca dëkk ba jidaaran miir boo xam ne yuriidu mu nga bëgg an yanqada pour daanu miir buy dem bay waaj daanu fa aqamahu wala yu xadir ne ko kaay léegi nag menee bar ngay nekk yonent yàlla Moussa lay wax di ab yonent ànd ak taalibeem mu ngi mel ni xalif benn xalifa bu bu àndoon ak taalibeem ñëw ci ñëw ñëw ci man rek ma ne ko euh, sumeekul solte nii simbong simbong yaag sa taalibe bi jàppale ma nekk ay manœuvre ma nekk entrepreneur pour ñu liggéey kër gi yonent yàlla Moussa d'accord foofu d'accord na su meeku ñu sol seen manœuvre muy jaxase suuf si kii di tibb suuf yoon ci yàlla Moussa di jaxase ñuy jox wali yu xadir mu toj miir bi yëpp defar di defaat am na ñetti fan ca dëkk ba nekk ay manœuvre di defar miir bi te miir bi kiñ koy defaral yorul ñaari dërëm <laughs> ki ñuy defaral miir bi yorul ñaari dërëm yu ñu leen mën a fay waa dëkk bi gis ñu am fa 24 heures di defar miir bi ñu ne ñële de ay dof lañ comme comme nag ñu ci dëkk bi di ñu defaral nañ tibb añ boog yóbbul leen na xettali leen ñu ñu yegg si wala yu ne ñoom duñ jël pay xoolal loolu encore ati <laughs> bu dee da ngeen ñuy fay ñun duñ jël fay in ajriya illa ala allah ñun ciñ fay ci loxol yàlla la nekk jël leen seen ñam ñu delluwaat yoon ci yàlla Moussa waxul dara de ñetteeli fan bi nag bi miir bi yeggee bi mu tabaxee miir bi rakiste ko bi na ne cocc nag fa aqaamahu ñu taxawal miir ba xaala yonent yàlla Muusaa ni ko law shita coono bii ñu am nag suñu sooboon xanaa coono bii ñu ci teggoo defaral leen miir bi bañ bem ne koroj la taxasta nañ laaj boog alayhi ci miir bii ñu taxawal ajran ñu fay ñu pour ñu mën a am luñ jënd luñ lekk waaw mu ne lii la wax wala yu xadir ne ko ñetti fan yi manee bër nag xanaa war na ñoo mën a fay ko nag yow itam ñetti fan ñuy manee bër di defar miir bii xanaa nag suñ àq la léegi pour ñu fayeku xaala wala yu ne ko haza wax bii nga waxanteeg man firaaku mooy sama tàqalikoo ak yow ndax yaa ma waxoon ne bii boo ma laajatee rek ñu tasaaroo mu ne ko nag fii mooy sama tàqalikoo ma ak yow xaala yonent yàlla euh, waliyu xadir ne ko haza wax bii nga wax ak laaj bii nga ma laaj firaaqu mooy teqaliko bay nii sama diggante wa bay naka ak sa diggante yow yonent yàlla Muusaa ne ko ah waaye dana doy waar de maa ngi yow ñu tàqaliko nii nii nii rek mu ne ko sa unabbi uka sa unabbi uka dinaa la wax nag tey bi ta'wili dinaa la firil maa lan moo tax lam tastati mënoo muñ alayhi ci li may def sabran muñ lu tax mënoo muñ dinaa la ko wax mu ne ko yow sharia la fi teg kuy jéggi sharia da ko war a xëccaat mu ñëw mu ne ko waaye man sharia teguma fi borom bee ma fi teg moo ma naan defal lii immédiatement ma def xaala mu ne ko léegi nag ñu ngi door a ñëw mu ne ko dinaa la nettali nag li tax mënoo muñ ànd bi ngay ànd ak man mu ne ko amma safinatu gis nga gaal ga ma doon taj fa kaana dafa nekk li masaaka yi ni li masaa kii na ñaari miskin yu ko moom ñoo ko moom yaamaluuna di liggéey dañ def pre jënd gaal gu bees taq di ci liggéey fil bahri ci géej gi fa aradtu man waliyu qadir an aibaha ma bëgg koo ayibal maanaam ñaawal gaal gi ndax lu tax mu ne ko wakaana dafa nekk ca tefes ga njëmoon waraa ahum mooy ca gannaaw géej gi mooy ca tefes ga malikun benn buur boo xam ne yaxusu day confisqué di nangu kullu safinatin gaal goo xam ne asban bees la rek da koy nangu gaal gu teer si di bees rek buur bi day taxaw nangu gaal gi te ñii miskin lañ ñaari miskin a ko moom mu ne ko fa ayibaha ma ayibal gaal gi def ci ay godron ba bu buur bi ñëwee xool ne ah bi gaal gu màgget la mu bàyyi leen ko ñu liggéey seen liggéey mu ne ko looloo tax ma ayibal gaal gi mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko wa amal xale bi ma rey nag amul bàkkaar reyul benn mu ne ko dëggal mu ne ko waaye nag fa kaana abawaahu ñaari woy juram yi ndeyam ak baayam muuminay ni ñu gëm yàlla lañ fa xasi naa sama borom ne ma xasi naa bii doo ko firee ragal de moom moo wax moom waliy xadir fa xasi naa ma xam ne sama borom wax ma ne an turxehu turxehuma turxeqahuma an be turxiqa turxiqahuma damay ragal xam naa ne buñ fi màggee danañ leen bewloo bañ génn ci lislaam tuxyaanan ak bew wa kufran ak weddi fa arad naa ñu namm yàlla namm an yu baddi la mu remplacer leen lahuma ñeel leen ñoom ñaari way jur yooyu rabbuhuma seen borom xayran ku gën xale bi minhu ci moom zakatan te gën a sell xale bi wa aqraba te ëpp gën a jege roxman ci yërmande mu ne ko gis nga xale bi su màggoon ñaar mooy am dana ne ndeyam ak baayam génnee leen ci lislaam dugal leen ci kéefar wala mu rey leen yàlla ne ma rey ko balaa mu leen di rey mu ne ko lii rek la rey leen reyal xale bi balaa moo rey ndeyam ak baayam kii boo ko reyee amul bàkkaar du dem safara ndeyam ak baayam daañ mujj te danaa wuutalal ndeyam ak baayam jeneen doom joo xam ne moo ëpp yërmande ci ñoom danañ ko dana déggal ay waajuram te dana doon doom ju barkeel mu ne ko waa boobu dëgg la ñu aywa mu ne ko wa amal jidaaru miir bii ma taxawal mu ne ko waaw ba nga ne nañ fayee ko mu ne ko waaw mu ne ko fa kaana dafa nekk moom it li ulaa may ni ñaari xale yu tuuti ñoo ko moom yati may ni di ay jirim yàlla xamal ne ma ñaari jirima ko moom fil madinati yu dëkk ci dëkk bi wa kaana taxtahu te nekk na ci suufu miir bi kanzun benn wurus lahuma ñeel ñaari xale yi wa dafa nekkoon abu abuhuma seen baay saalihan di ku yiw xam nga lu seen baay def dafa am na ñaari xale yi xale yi toll ci six cinquante ans six seen baay feebar yëg ne day faatu te ku gëm yàlla la mu julli ñaari rakk jël wurus bi mu amoon gas ba mu xóot def ko ci biir def ko ci mbuus def ko defar ko ba mu baax def ko ci ci ci suuf kaste ko suul jël miir tabax fa nag clôturer ko miir ba dem bay waaj a daanu te bu daanoo ñu gis wurus wa mu ne ko nag seen baay boobu nga xam ne kaana abuhuma seen baay ñoom ñaan saalihan daf doon ku yiw fa araada mu nam mu ko sa borom an yabluga ashuddahuma ne ma naa taxawalaat miir bi miir bi buñ demee ba am dix-huit ans ci la miir bi di daanuwaat ñu mën a gis nag seen alal jël ko séddoo dégg nga mu ne ko nag fa fa araada dafa namm ko sa borom an be yabluga bu ñu matee ashuddahuma seen majeur bu ñu majoré wa yastaxrija mu génnee kanzahuma seen trésor bii ci suuf ñu gis ko jël ko séddoo ko mu ne ko lii yëpp rahmatan yërmande la min rabbika bu jógee ko ci sa borom wa ma faaltuhu defuma ko de an nafs an amri ci sama mbiru bopp rek zalika lii ma la wax na taawilu mooy piri maa li nga xam ne lam tastati mosoo mun muñ alayhi ci mbir moom yi ma def yëpp sabran pour nga mën a muñ mu ne ko ñett yi ma def lii mooy piri mi lii moo lay won ne mënoo muñ ci li may def waaye li may def defu ma ko si ma mbiru bopp de yàllaa ma ko sant ma def ko mu ne ko kaay ñu waxtaan nag mu ne ko ci naka mu ne ko yow ñetti mbir yëpp dal na la ji te seetlu woo ko Moussa ne ko man mu ne ko yëpp dal ne ko ci naka mu ne ko ba nga juddoo du dañ laa daaj ci kee sànni ci géej kon looy looy ragal gaal gu toj <laughs> seet wala yu xarit ne ko du ba nga juddoo mënaloo sa bopp dara di liir bu tooy xepp sa yaay daf la jël dugal la ci kees daaj kees ga sànni ko ci géej gi muy tëmb bekkal Firawna nga génn kala musal noonu mooy ñuy musal kon yow bi nga nekkee mag bi yàlla lu yónni la looy ragal la mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko xale bi ma dajee la rey ko mu ne ko def nga lu ni mel ni mu ne ko man mu ne ko mu ne ko xibtu yi ba nga doon àtte da ko fàtte booba yàlla yónneegu la ca misra nga pes kenn ki wala nga puus ko rek mu daanu dee mu ne ko kookaay kii mu ne ko ñetteel bi def nga ko mu ne ko ban la mu ne ko ba ngay jógee misra di daw di dem Madyana ca Suaybu xiif ay fan lekkoo toog ca taati garab ga mooy summa tawalla ila zilli ba nga nàndalalee jigéen ña doomu Suaybu yi ba pare dañ dañ ñëw ne la inna abi yaduuka li yaj li yajziyaka ajra ma saqayta lana sama bàyyi ne nga nga ñëw mu fay la li nga ñu nàndalal loo waxoon danga noon in ajriya illa ala soxlawuma payu nit payu yàlla laa soxla mu ne ko fii tamit ñun tamit mooy lii soxla wuñ payu nit payu yàlla lañu soxla yonent yàlla Musaa ne ko wax nga dëgg de mu ne ko ñett yii nag yëpp ma def yow def nga ko te rendre compte def nga ko yàlla daf lay indilaat histoire bi rek waaye yaa ko def man ma def ko ah, mu ne ko yàlla dafa indiwaat histoire bi rek waaye yaa ko def ma def ko hmm? waaw kañ kon nag moo tax mu ne ko maa faaltuhu an nafsi defuma an amri defuma ko ngir sama bànneexu bakkande zalika lii nag taawilu mooy piri maa la nga xam ne lam tastati mënoo woon alayhi ci mbir moomu sabran mun koo muñ mu ne ko fa tegg nag xam nga lu tax wa yasalunaka ñu ngi lay laaj yow rasulullahi gis nga alquran ni muy toftale an zil qarnayni mbiru zul qarnayni gis nga bàyyi na xadir ak yonentu yàlla Moussa wax ak yonent bi dugg ci zul qarnayni yow boo ma doon déglu ci njëlbeen ma ne Zulxarnayni ne Alexandre euh, euh, ne la grande miraaj de Chine nga foog ne dama doon jaxase lii ya taxoon may wax yonent bi fekkewu la grande miraaj de Chine fekkeewu ko di te moom la yàlla di waxal kañ fekkeewu ko te moom la yàlla di waxal moo tax mu ne waaye yasalunaka ñu ngi danañu la laaj si suba an zil xarnayni ci mbiri xarnayni zul xarnayni xul neel suñ ñëwee sa nat sa at lu danaa leen nettali aleykum ci yéen minhu ci mbir moomu ngeen may laaj zikran xibaar bu leer naññ da ngeen xam kuy zul xarnayni nay ni ak waliyu xadir dinaa ci dugg ci suba incha allah ñoom ñaar ba zul xarnayni di tabax miir ba te mooy ci la ñuy dugg si wala yu xadir daf koo jàppale donte bokkuñu jamono ndax wala yu xadir day turne rek du dee ne naa la du dee jamono bu ñekk wala yu xadir a nga ci jamono bu am wala yu xadir a nga ci ba yowmal am na du dee dafa bokk ci ñi yàlla bind te duñ dee am na am na juróom-ñetti mbir yoo xam ne duñu dee ak gannaaw ga illaa man shaa allahu ji yàlla beneen bi mu ne illaa ma shaa allah bii man la wax bii mu ne maa ismu mawsul lu tax ismu mawsul li aqil hmm. kon foofu la ñuy dugg ci suba insha allahu taala lu tax yàlla bàyyi yonent yàlla Moussa rek dugg ci yonent bi génn ci yonent bi dugg ci zul xarnayni dañ am liaison yu leen tëkkale yu leen lënkale loolu moo tax yàlla alxuraan dara du ci hasard incha allah buñ ci ñëwee suba nag foofu la ñuy jeexale ci kàttanu yàlla moo ci des wax jaar-jaaru wali yu qadir fi mujjeeg Yuusa ak yonent yàlla Moussa biñ delloo ba yonent yàlla Moussa génn àddina mu des Yuusa <coughs> bi yonent yàlla Moussa génnee àddina nag mu des Yuusa Yuusa boobu nag moo mujj taal jihaad jàppal fi ma la waxoon yatihuna fil ardi quarante yiñ doon dox quarante yiñ doon dox xamuñ pañ ko xamuñu sow wali eh, Yuusa bii nag bi mu demee fekk na seen mag ñépp dee ci biir quarante yi troisième âge bi yëpp dee nañ deuxième âge bi yëpp dee nañ xale yi maase woon nag ak yuusa ñoo fa des yuusa ñëw ànd ak ñoom takk xare pour dugg biir biir mis dugg biir euh, Palestine foofu dinaa ci taxaw pour ëllëg mu gën a yomb bi yuusa ñëwee nag ba dugg biir euh, Dimisqa muy Palestine tey jabaabiri yoon ya fa nekkoon mooy ponkal yooyu bi yu sax ñëwee nag dafa regroupé waat ñëpp ne leen gis ngeen ponkal yi ay pëtëx lañ pëtëx laal ñu dee lañ ndax seen xol ya dara newu ci te ñun suñ xol yi gëm yàllaa ngi ci waaraat leen ndax boobu yàlla jox na ko nubuwa gi am na ñu ne yonant la mujj nekk am ñu ne déedéet ne sulaha ci ñu sell ñi rek la bokkoon waaye lu mën a doon rek moo remplacé yonant yàlla Moussa moom Yuusa ne gars yi acce leen ñu takk xare ñu takk xare aywa dugg ci biir dëkk bi di xeex di xeex di xeex di xeex di xeex suba ba jant bi di so kenn taxaw bi jant bi di waaja a so yuusa taalibe bi bu yont yàlla Moussa boobu yont la Moussa génn na àddina wax naa la ko bi Yuusa gisee ni jant baa ngi so te bu jant bi di so jabaabiri yu ne yi dañ leen jekku éliminer leen mu ne yàlla jant baa ngi nii di waaj a so te buy so jabaabiri yu ne yii dañ ñu écraser te fi mu ne jekku nañ leen may ma nga bloqué jant bi <laughs> may ma nga bloqué jant bi ba ma terminé xeex bi waaw xam nga ne kon moo tax ñi sukkandiku ne yonent la foofu lañ sukkandiku ñu ne loolu doole yónnent rekk ko mën bloqué jant bi ñaar ñetti nit a ko mos a am bankal sa baaraam am na ñu ne ñaar waaye man ñett la ci ñi ne ñett la ci laa d'accord weddiwu ma kenn nag waaye ñett yii mooy kii ma wax yu Yuusa te dinaa terminer ka ko ñaareel wa qatala daawuda jaaluuta fa aataahu llaahu mulk mulka mimma wa allamahu mimma yasha daawuda ak jaaluta ba ñuy xeex ñoom ñaar xeex bi métti lool daawuda di yonent jaaluta di saay-saay di bandi biñ demee ba jaaluta jekku ba xeex bi métti ba daawuda nag jekku jaaluta jant bi di waaj a sote buy sowee rek dana ko jekku jaaluta dana renversé waat xeex bi daawuda ne yàlla bloqueel ma jant yàlla bloqué jant bi mu nekk rek 17 heures te waroon na so bu yàgg deux heures de temps avant yàlla bloqué ko 17 heures muy xeex di xeex di xeex di xeex dem wóor ko ne jekku na jaaluta daawuda doon waxaat yàlla débloqueel jant mu débloqué jant bi muy doxaat di doxaat wa qatala daawuda jaaluta daawuda rey jaaluta fa aataahu jox na ko ca saasa nag almulka nguur wa allamahu mu xamal ko mimma yashaau la ko soob ci xam-xam yi moom suñ borom subhanahu wa taala daawuda boobu am na ko keneen ku ko amaat sayduna muhammad kooku bloqué wuñ ko de moom ñaari yoon la ko am kon cinq fois la ko yàlla def nañ déglu bu baax defal na ko yusha defal ko daawuda defal ko yoon ci yàlla muhammad ñaari yoon ci benn jotaay nag subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ba yonent bi ñibbisee gaa yi dañ ko ne ah, yow nga ne dem nga fële ca kaw ba pare waaw mu ne ko yow bani israil gii rek israil gii rek pour dem fa ñaata heure ngay jël pour dem ba israil gii cham gii pour nga dem fa yow ngay ñeme yàlla naan ngém nga fi asamaan yi juróom-ñaar wax sa wax ju rëy ji daal di ne ko waaw suñ caravane bi mu ngi mu ngi mu ngi woon ci diggante bi di ñibbisi wax ñu fu mu bu fekkee dem nga xanaa ko dem kañ war ngaa jaar masjidul aqsa comme nee nga jaar nga masjidul aqsa Jérusalem kon kañ yow mi war ngaa xam fu ñu toll suñ caravane bi demoon yaa deux mois war a ñibbisi ñu ngi ci yoon wax ñu fan lañ toll yonent bi sallallahu alayhi ne leen bu dimanche ca tàkkusaan bu jant bi di waaja so ci la ñuy dugg si ci dëkk bi xam nga ku yàkkamtee fen loo nit ñoom ñëpp ñu dem ci dimaas ñu dem ci bunti dëkk ba jonkon def nii ñii di xool jant bi ñii di xool njëg mi pour xool pour fen loo ko rek yonent bi yëg ne jant baa ngi so te ñii dañ am retard ñu ngi ñëw waaye dañ am retard ñu ngi ñëw de waaye dañ am retard ndax dañ yësaloon seen gëlëm yi doon seetaat seen marchandise bi di ko trier li ñu war a jaay fii ak li ñu war a jaay fële xam nga kon am nañ mu ngi mel ni kuy kuy jël vol rek ñu ne la vol be am na retard de une heure de temps wala trente minutes waaw kay yonent bi yëg na am na am am na te yéefar yaa ngi jonkon pour fen loo ko mu ne yàlla bloqueel ma jant bi gaaw balaa moo so bloqueel ma jant bi balaa ñii di yegsi yàlla bloqué jant bi ñële nekk ci yoon bi ba bi ñuy yegsi bay waaj a dugg Medina rek euh, Màkka rek yàlla débloqué waat jant bi mu a ndoor ànd ak seen yegsi ñu bari tuub ne gis lii wax lii mu tombee nekk kii yàllaa ko yónni ñi ci des na njabeer la beneen bi booboo gën a garaaw sëriñ bi yàlla defal yónni booboo gën a garaaw bi yonent bi day xeex ak yéefar yi jàppatuma ban xare la di xeex di xeex ba jant bi so fekk julli wu tàkkusaan biñ dominee xeex bi nag mu ñëw tëdd ci pooju Seydina Ali for bët ba mu yàgg ne xifeet ne Seydina Ali julli nañ tàkkusaan mu ne ko yaa rasulallahi julli wuñ tàkkusaan de jullee guñ de mu ne ko xeex bi métti na julli wuñ tàkkusaan mu ne ko julli wuñ tàkkusaan mu ne ko yàlla yéefar yii xañ ma tàkku tàkkusaan maa ngi lay ñaan ndem sa jëmm jee taxoon may xeex delloo sil ma tàkkusaan yàlla arrière jant bi loolu moom doo nga ko ma sa am arrière reculer ko ba cinq te boobu sona jant bi sona ba timis passé ba gee dugg yonent bi ne yàlla waxtu walaa bëgg a dabu léegi dama bëgg nga reculer waat jant bi yàlla reculer jant bi ba 17 heures yonent bi jóg jàpp ànd ak Seydina Ali julli tàkkusaan lii moom rek a ko mës a am ci kaw suuf keneen mësu ko am kon fii la ñuy taxaw ba ëllëg ak jàmm in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokki jullit yi nag bu kenn déconnecté may leen ma ñu jox kàddu gi euh, suñu doom bii nga xam ne kaay kaay kaay mooy doomu imaam Abdullahi Fall muy doom ju baayam gërëm nag ndax moom mii duma ko wax lëpp nag du ko wax lépp ndax bañ cat ak naagu waaye billaahi imaam Abdoulaye Fall bii fi jógee wax na ma ci moom loo xam ne doom ju bare bëggoon na ko ci baayam te dégg ngeen lim jot jote génnee ci gémmiñam te imaam Abdoulaye Fall taale na oto këram ñëw ba si fii ci kër gi waxuma benn soxla bu dul moom mii te waxuma ñaanal ko de seedeel ma ne dama koo gërëm te sant ko bind ay bind billaahi wal bind ay bind def ko ci enveloppe jox ma ne ma garde ko ilaa ajalin musamman ci wax ñu jëm ci moom mii ak ñeneen ak yeneen ñeneen ñu ma wax waaye moom moo ci jiitu kon nag nit jur na doom te yeggul ak moom foofu kon nag ah dégg ngeen li mu waxaat léegi moo fi toogal waa seeraas yëpp toogal fi bàyyam ñu jox ko kàddu bi bu daaneelee rek nag incha allahu taala foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi sooy daaneel daaneelee ko ak ñaan su ko defee ndax ku sa bàyyi gërëm boo ñaanee mu nangu te soxla yi bari na kat maa ci ëppale man mii di wax maa ci ëppale soxna yi bari soxla yi bari na lool ku baayam gërëm boo ñaanee mu nangu yéen ñi may déglu yéen internet yi profitoo leen ci ku baayam gërëm a ngi man de fekkee naa Cheikh Al Hadj Abdoul nit ñëw ci moom ne ko kii yaa ma mayoon ndeyam ndeyam a ngi nii toog yaa ko mayoon fii juddu na ba man nag waaye maa ngi lay gëñal si Malick gërëm doom juma gërëm a ngi nii ni ma ko gërëmee it la ko ndeyam mii gërëmee mu ñu bëgg nag yow rek yaa ñu ci doy si Malick nga ñaanalal ñu ko yàlla ndax gërëm nañ ko El Hadj ne ñett ñett ñett fi mu toogoon ci kaw. ni daseet wàcc ci suuf ni ndax yàlla ma gisati ku ndeyam ak baayam gërëm ñaanal ma ba noppi sëñ Abdu ci boppam ne ko ñaanal ma ba noppi ma door a wax sëñ xale bi ñaan ba noppi góor gi raay ni ndax ma gisati boo ku ndeyam ak baayam gërëm te yàllaa ne ku ndey gërëm bàyyi gërëm man yàlla ma gërëm kuñ xarab ma xarab comme gërëm nañ la nag ñaanal ma yàlla ba noppi moo tax ma ne yéen internet yi seetaan yëpp Cherif Dabakh TV wala Cherif Dabakh TV yéen ñi koy seetaan ñun ñëpp man mii wax ak yéen nañ profito labal soxla yi ci biir bu waxtaanee ba pare ñu bàyyi ko mu ñaan te ñaan googu yal na ko yàlla nangu ci barke weeru koor wii ci barke bés yu tedd yu màgg yi waaye ci barke ngërmaane gi ko bàyyam gërëm te ma fekkee bismillah alhamdulilah rabil alamin joxel sa tur ñëpp muhammad wa ala wa sahbihi ajmain man la ibrahima fall mhm. di doomu imam abdoulahi fall ak alimatu mhm. di liggéey seras ñu def ma fa imam mhm. ci grâce de imam fall alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi sant sérif bu baax a baax di wax ni waa Seras ñu ni namm nañ la seen xel tey ñëpp mhm. toogoon nañ te jumaa di la xaar waaye nag xool ya xalaat yëpp dajawaat na ci ñun ñu ñu yónni mhm. ni imaam Arona nee na mu ngi lay di directeur général lam doon def la taal si sa doon def loolu la def mhm. nangul nañu lépp ndax ñun duñu fay courant duñu fay ndox te jumaa ja lépp moom moo na ko géral ko nag ñu ngi ñaan nga ñaanal ko sa surtout ba gën a yokk di la wax tamit sa xarit sa soppe Talla Cissé nga ñaanal ko yàlla xare ko àjjana firdawsi ndax moo tax ñu xam la waaye ku baax lu baax rek la doon wax ci yow ci di la gërëm bu baax di wax waa Seras ak waa Daral ak ñëpp nee nga ñaanal leen yàlla feewar bi yàlla jële ko fi ba ñu delluwaat suñu activité nga fay ñëwaat di wax la ma doon wax rek Serif mhm. man sa soppe laa mm-hmm. ndax man dama la wax ni ma damaa nangu li la yàlla may mm-hmm. xam lu ñu sonal mooy dañ dul nangul ku nekk li la yàlla may mm-hmm. yàlla am na lum la may man de dama koo nangu te Chérif doo ko ndaw xaw ku la xamul de mais man xam naa la te sama waajur tamit xam na la ndax musul dañ di wax ci yow te loolu daa rëy ndax imaam bu demee ba ma nekk léppam mm. man dara kon erreur waruma ndax sama âge yu ma toll nii hmm. imam bu nekk comme men mi bariwul mais te tamit du jàng bu bari hmm. mais nangul ko la hmm. ndax ma li tax ma bëgg la rek mooy danga bëgg mag ñi te fii yi fi mag ñi def wax nga ko sànq sa biir waxtaan nga ne am na fu ay yonent yu bari tëdd ay bombam fay tàkk yaa ko wax de waaye ñu suñu senegal gii ñu am am nañ ci mag ñoo xam ni wallahi buri woon ñoom mu ñaaw te nit ñi mënuñu koo nangu mhm. mais ñun de dañ koo nangu mhm. kon nag loolu dañ la koy seedeel ni ku mhm. baax nga Chérif daaw fii laa ñëwoon nga ñaanal ma wallahi dama koy wax ñëpp dégg ñëpp dégg ko man la Chérif dama bëgg am daara maye ko fii sabilillah amaguma ko de waaye am naa kër goo xam ne chaque jour kaamil dafay jàng vingt quatre heures sur vingt quatre comme ama commencé naa am daara am naa sama kër gu ma moomal sama bopp kon daara ji dina ñëw ndax alxuraan a nga fay jib ma jóge fii dem mhm. ñu fal ma imaam benn mhm. sërif ñaar ñu def ma ci benn groupe boo xam ne dama fay def waxtaanu diine muy sama ëtt kër maam mhm. te bi ma jugee fii laa ko am ci yow bi ma jugee ci yow it yàlla may na ma xam-xam sërif ma wax la ko te ci yow laa ko gisee ndax nee naa la man damay topp say vidéo damay topp say waxtaan ndax ñun gone yi su fekkee dañoo bëgg di dem dañuy am mag ñoo xam ni daf ñuy dimbali yow ci nga bokk nee naa la man de man xaw kenn mais man sama idol nga jun part mooy dangaa oyof mm-hmm. te yontu bi loolu la amoon mm-hmm. yontu bi daa daan bokk ay saabaam bi lekk di naan mm-hmm. sërif yàlla may na la loolu kon nag ñun du ñu def lu dul ñaanal la yàlla man foo ma gis ak foo ma gisul gëlën ni sama xol bi yaa ci ne ndax li tax moo wax ko danga koo jëfee ma gis ko danga koo jëfee ma gis ko ndax ñun am nañ ay jafe-jafe sërif wax la ko nga fajal ñu ko te ba ñuy def jumaa seeraas di ko toj tiit ba ñëwee wax la dañuy tojal yaa ni rajaxel lépp balaa mat six mois ñu tabax ko kenn dàqalewu ñu jumaa pour l'instant te yaa ko waxoon te kon te yaa njëkk a jël sa ñaq def ko te loolu yombul dama ne nit ku nekk buy digle càngaay day fekk ngay sangu te macha allah kon ñun leen rek laa lay ñaan man damaa bëgg a mel ni yow xam ku ci nekk am nga droit daaw ñëwoon naa fi gis yokkute mhm. ren damaa bëgg mel ni yow xam ne tax ma bëgg mel ni yow mhm. dama bëgg sama morom yu jeunes yu bëri mhm. xool ci man xool ci ni yontu bi dafa àndoon ak Aline mhm. te Aline xale la woon wallaay dëgg ah, kon man dama ànd ak sama bàyyi def ko comme noonu ndax man tey ma wax la Chérif ñu bëri dañ doon wax man damaa ñàkk fayda ndax damay wax ñu ni man maay bëkk néegu man loolu lañ ma doon fu mu dem dama yor dàll mais tey njëriñ balaa gis sama lu mu bayaan bu génnee mën naa ko waxaat te dama ko jàng ndax damaa tàmm toog ci wetam amul ku xam imaam te xamoo ma amul te loolu lépp grâce de ñaanam la waaye yow ci nga bokk mm-hmm. ndax depuis ba ma lay njëkkee présenté Chérif mm-hmm. li ma yëg sama xol musuma ko yëg ci àdduna wallahi al azim mm-hmm. damaa wóor man duma waxantu ndax ba ma la bañ ma la présenté ba ma tëddee nelaw war a xëy te dama la koy nettali Chérif damaa gént sëñ Babacar mu yéeg ci watiir xam nga xam bu baax. sol bonnet carré bu ñuul. Mm-hmm. sol yére bu ñuul manteau yi waa Màkka di sol. Mm-hmm. mu ne ma kaay ma jàngal la benn ñaan. wallahi damaa woor. Mm-hmm. ma ñëw ba ci mboom mu tari faate ba mu jeex ñu yaa ma ñoo jógal xëy. wallahi azim te boobu dañ laa présenté ba ci suba ga la. ma war a liggéey samedi du ko fàtte mukk. sama doom boobu dama ko mere ba ma xam ne jarul mere. te sama doom boobu alhamdulilahi rabbil alamin ki ma yeewoon wàcc na Qur'an. xam nga loolu lépp. yàlla day def liaison mm-hmm. kon man dama bëgg nit ñi xam sa valeur Sénégal ñun am nañ koo xam ne dañ ko war a tiitaroo mm-hmm. yàlla dafa yàlla mooy def loolu mm-hmm. ku bëgg na nangu ku bañit na nangu yàlla mooy maye lu ko neex wax nga ko bi sànq lim na ay prophètes yu bari te tànn ci Seydina Muhammad mu nekk seen jiit ñoom ñëpp far force ku mu neex ak ku mu naqari kon yàlla moo la may lii nga mel man de Ibrahima Fall nangul naa la ko te waxoon naa la ko daaw mm-hmm. feddaliwaat naa ko gën naa ko nangu mm-hmm. yàlla dafa la may sérif mm-hmm. te amoo ko dara lu dul ci mag ñi nga bëgg wallahi al azim kon nag képp koo xam ne bëgg na fi am dara il faut nga dellusiwaat ci mag ñi naa ko benn waxtaan ma ni Serigne Touba fekkante foofu maam Alaaji Malik fekkee fekkante fu seex na sax sàbbu mais ku ci nekk da ngaa nangaloon sa morom moo taxoon ñu mënoon ànd kon nag loolu moo fi jafe ñun nag jeunesse bi dañ lay ñaan loolu nga ñaanal ñu juboo man dama bëgg a mel ni yow mm-hmm. wallahi al azim damaa bëgg a mel ni yow dem màkka jëkkër fi nga dugg yëpp ma dugg fa <laughs> incha allah waaw loolu rek laa waxoon incha allah waaw dinaa ko wax nga ñaanal ma ko yàlla ndax xam naa ne soo ko ñaanee chérif dina sotti ñaanal ma am daara moderne mm-hmm. tabax ko mm-hmm. ba pare maye ko wallahi soxloo mu ci leneen nag tabax ko ba mu ni booy ma maye ko fii sabilillah bala maa dee dama ko ñaan yàlla bala maa génn àdduna ñaan naa yàlla yàlla naa am daara tabax ko maye ko loolu moom dama la koy ñaan te naa ne ba ko ñaanalee dina sotti kon nag lii laa waxoon dinaa ko tey nag ma ñaan mu rek xaw a dis ci man waaye nag dinaa ko def ngir sa ndigal auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi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 su fekkee bëgg nga ñu bëgg Sénégal yàlla na nga may sérif mu am téeméeri at ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbi jërëjëf Ibrahima sama turandoo jërëjëf jërëjëf